Ahmadu Baara. Baara ku la way Baara. Aziz sama may sunu mbër. Baari saxaaya. Borom tey fak bay laar. Seex magi daan xariloo. sama ma seexal ñi fi moo la gën maam ndax sëñ Baara mooy sama maam doy na sëkk ci loo gis waaye moom doxewu ko wanewu ko wàccee boppam maa sëriñ léeg-léeg da damay dox ba ci yàgg ñu naan ma yow si sëriñ day ñàngal rek ma ne ko nag maamam la ñu barki Cheikh Rafaal muy ku xam boppam ne wax dëgg ku xam boppam la xam xam moom mooy kan xam fi mu bokk. wax dëgg moom xam na xam xam na ci bopp bu baax a baax muy ku oyof wax dëgg man sama xarit la sama lépp fu muy dem daf may woo lu ma jàppoon dama koy bàyyi léegi nii sax damaa tuub ci tëli bi ma sol nii waaye démb daf maa yónni woon jooy ñu nag soxna Mousty ngir moom mi ngi ñuy wéttalu bu baax a baax ñoo ngi ñaan yal na la yàlla àggal yal na nga yokk ba yëkku ci barke Sëñ Tuubaa suñu way jur wii nag dañ koy bàyyeeg sëriñ bi rek ndax moom foo ko fekk mi ngi ci alxuraan xasaay kooku mooy ñaanal boppam ndax saa yoo ñëwee fii fekk ko mu yor xasaay wala mu yor jukki jukki alxuraan kon kooku mooy ñaanal boppam ñoo ñaan suñu borom guddal fanam defal ko jàmm yàggal ko fi ba ci kanam a kanam ziyaare ko sunu sunu jëw jee toog di kër ñoo ñaan waaw sëñ maam Cheikh Sarr ñu ngi lay ziyaare Sarr ñu ñaan sa fan gudd nga yokk loolu ba yëg waaye man nag moom damay sant sama mag ji ndax lépp lu ma am fii wala lépp lu ma mën ci kër gi yàlla ak moom muy sëñ Fallou moo ma xajal boole ma ak ñoom ba ku ma gis bëgg ma yàlla ak sëñ Fallou mu yaatu lool di mu baax wóor na seexul xaat kenn gënu ko maa ngi ñaan yàlla na nga yokk lool sëñ maamu moom nag bi mu màggee gërëm na du xarab nit ndax li la ñëwagut lépp rafet na ci li ma wax ci sa jëmm ji ci la ndax soxna Aminta Lo mu baax ma la mu bàyyi woon Serigne Mouhamadou Lamine Bara ak soxna Awa Bousso dara yàquwut ëppalewu ko kër gee kër gee ëppalewu ko ca cër faam rek moom la faam waaw waaw jeex mu ubbi kër ga nekk magam nekk léppam kon ne ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm soxna Mbène Fall moom sëñ Modou Aminata ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax soxna Mbène sama yaay xolam du jóg ci moom xolam du jóg ci moom soxna Mbène moom sëñ Modou Habib Mbakke ñu ngi fii kenn nag moom lool jege ko lool bëgg ko lool sol nañ ne aju wiitu ay bokkam la fa nekkal ay ay ay ay ay kilifaam rek ñoom la fa nekkal ndokk na ba mu dewee jëm ci ñoom am bu baax ñu ngi koy ñaanal yàlla bis bi sëriñ bi defar na ci lu kawe njortam ñu ngi ci sunu wënëre bu baax mu Madja Mbaye moom Serigne Mbacke soxna Lo. waaw borom saa yi. Madja ñu nii toog. kon nag dama ko jàppee na ko kii sëtub Serigne Touba la ba léegi. jàpp na ko yëg na ko. te loo jàpp pour lu sëtub Serigne Touba bàyyi nga kon Sarr mi ngi lay ñu ñaanal yàlla. bàyyi Siré Mële ay sunu mag. loolu muy adresse am ndax ñu war lañ nga ne xàmmee naa ko ci ci jumaa doy na sëkk ndax ah, baa doole wut yàkkamtuwut te dal la ko tey la ndax koro bi Cheikh Mouhamadou Fadal di fàkk di fàkk fii koro ba ma gasee loxo sama bàyyi la na dugal sama loxo sama bàyyi ñëpp am na sëñ Fallou ne ñu ne ko Touba Thiaré sama pekk coow li njëkk yi wutoon fii ci Touba Thiaroye ma nga woon ci sëñ Mat Laay man dem kër ga ca Thiaroye koro ba si Muudu Moussa Fallilu wat wecc koo kër ga la ne fal Fallu ab dencam du du gooy Touba mënut a yem ak fenn mooy ndigalu yi ñu ñëw fii man booba laa ko xam muy ku dal ku tey ku am ab yar ko mag ñi gërëm la bàyyi sëriñ yal na yàlla guddal sa fan mag ñi buñ fi ne woon mooy kekkante toog ñoom ak ñoom comme duñ ko wóoloo jox poste kenn du ko jox poste te comme souvent ñun ñooy bañ ñun ñi nga xam ne fi leen juddoo moom fi la juddoo fi la yoroo mais bu tey la bu dal la ma jë liggéey baa ngoogu su ko defee rek waaw alhamdulilah. taalib ci boo xam ne gis na ci sa taarix ci yoon dafa bokk yi nga xam ne dañ ko cee tànn muy su tànnee muy bàcci ndem nag kenn kenn ci ko sëñ bu moom moom moom moom day cër ci yoonu kese ci sant yàlla bu baax ñu ko yàlla boole li waaye sëñ Saal nga xam ne daal di gën rek ba yoon nañ ñu tënkoon ñaar daal di masale woon lépp daal ciy sof rek waaye daanaka kàddoom yi rafet na soxna Saal nga xam ne wax dëgg yàlla ay ay ay ay ay teg si ne ma lii daal njëkk a dégg jëmm lay xamal ne bu baax te baax moom bés bi ñu mën nit bala ma doon lu baax waaw te sant yàlla baax bi ñu gisee soxna aji ñu ci wóor rek soxna aji kenn ci ñun yow boo ko gisee moo la baara boo ko gisee baara ku ne xam ne suñu baara lu mu am te moo la baara te loolu boobu moo ko duggee sol ko moom ko fu lépp ko waaw ñu ñaar kenn koy wax tudd sëñ Ba bëgg ko toog bëgg ko traversé ndax mu bëgg ko tudd sëñ Ba alaaj Ba waaw te ñun lu am kës nga laaj kë alaaj Ba mënul mel kën alaaj Ba kon nag ñun fii ñu ñëw dañuy wane loo génn suñu kër waaw moom mii tey boo ko fekk waa kër alaaj Ba da ngay naan kër alaaj Ba la ko moom moom dafa jaxasoo ak moom jaxasoo boobu la di ko indi loolu lenn rek ko ñu ci sëñ yàlla xaj na mënuñu ko fay ndax moo dama doon sëñ Tuubaa newul sa maam alaay sëñ Baara newul sa maam bokkoo kër kër kër sëñ Gawsaay kër ne sa jikko ji mën naa la ko jikko moom la yàlla tànnee yore waaw ndax nit ku amee ful xam fi mu bokk te ba saa yoo ko gisee maanaam doo ko gis ba mu soppi ko wala mu changé da ngay xam xam fi mu bokk ndax nit ki lu la boole fenn la bokk nga xamoo ne ci nga bokk jaroo ca jaru nga tey nga xam ne ko xam ci nga bokk rek moo tax mu yàlla dimbali ko mu mu mel mu mën a jaxasoo ñëpp jaxasoo ay mag yomb waaw ndax jëmm yi toog nii aji tax leen a ñëw woon tey nii mu mel mu mën a jaxasoo ndax dañ faa dana doomu ji mu ne ak rakk rek koo xam ne kii am solo mooy fexe ba waaw ndax sama paa sama jiwe sama baay jiwe sama maam li ci am solo mooy nga fexe ba ca yoon la jaarale nga jàpp ba yéen yoon boobu lañ ko gis moo tax ñu xeebal woon yoon waaw kon yoon wi foofu rek la de ñu koy ñaanal yàlla guddal fan yàlla bu yàlla defal mbir mi yeggali sama liggéeyu maamam bi yàlla ci am képp ci kenn amul ndax nag moo doon ci góor la boo doon buuri doole bi daal tubaab bi sa taali da daan sant góor ñi sant jigéen ñi ndax cër bi góor am muy jàngal mu jàngal alxuraan bu góor ñi dina jàngalee jigéen ñi alxuraan gën ñu gën koo mokkal nag. kon Fatou Ndiaye yaakaar naa bokk la ñuy gën a mokkal am. nag kon ku ne xam ne ñoom suñu tubaab bi. suñu góoroo da cee nekk waaye suñu jigéen da cee nekk. comme jamono ji muy soxna jaar. yaakaar naa ne moom moom loolu rek tey na référence ci ni cëru jigéen gi ci biir kon nag pour am jigéen taxawee am kon nag sant nañ ci yàlla bu baax baax am nañ ci nag mbég ca loolu ak kontaan ndax bis bii moom buñ fi teewoon fukki fan yi daf fiy toog di indi bis bi ndax bis bi xam nga dem ñu ñaan waaye bàkk nga ñaanal ñu ci nag waaw nga fasal ñu ci te toogal ci bàkk sa bopp lépp ci waaye indi muy soxla muy jàngoro yàlla ko fi yàlla yemal te goy dem yàlla na ay xéewal ko parce que tubaab yu baale soxna si yàlla bu baax yàlla ko teewe bu déwee ne yàlla na romb li ci barke jërëjëf ñu sant ñëpp moo doon Cheikh Bamba salaamaaleykum mbooloo mi moo doon njàmbaar ba ak fitam rëy wa mu yor ba mm-hmm. ba jaar taalibe jaay nañ tool mu Cheikh Mouhamadou Lamine moom sëñ Fall nee na sëriñ maguñu ma rawuñu ma fekk naa leen mm-hmm. barke borom Tuubaa nee sëriñ maguñu ma rawuñu ma fekk naa leen kon moom jàpp gii ñu jàpp soxna ak yi mm-hmm. ñun lan ko jàppal bëgguñu soxna si bëtam xonq sëñ Tuubaa rek ne woon nag du ma du ma du ma du ma tee seen bët xonk waaye loolu la wax waaye ni gaay ñu jàpp ñu jàpp aji la ñu jàpp rek te sëñ Tuubaa rek la moo tax nag sëñ Tuubaa rek moo tax xëy na bëgg ko sëñ Tuubaa rek tax te lu ci loolu sëñ Tuubaa moo tax ñu. ak wax na ma lépp.

ki xewla nag tey ba fekk euh, alaaj di jëntali kàddu yi moom dafa war a xewle ndax ñaar sëñ Bas Baara maa ko fekk HLM maa nga ànd ak sëñ Axma Mbàkke di caaminam moom mii toog sëñ Axma Mbàkke koro bu ñu demee fekk nañ sëñ Bas booba mag mag di dikk na te boobu fekk noonu sax di su tënte waaye daa daal di génn toog ak ñun di waxtaan bay waxtaan si kilifaam moom mii di wax nii si nab suñu ñoom bi ñuy bi ñuy bi ñuy nekk sax di nekk ñoom ñoom waa kër suñu leen baara yi suñu musaana bëgg lekk bu neex baa nu soxla xaalis xaalis si waajuram la ñuy dem moom mii sëñ bas sëñ bas sama wax de maa ngi toog te jëwal du fen waaye dina nettali damay nett li man. loolu lu mus a soxla lekk bu neex mbaa du bëgg sañse mbaa du bëgg xaalis def ko seen i poos waa kër si mu leen baal si waajur mu la ñuy dem moom ñun. dama ko wax sëñ Axma Mbàkke maa ko gunge kumba sëy mu am ca juróom ñett doom ya maam sira xuju kumba gayjeen xuju kumba faaloo xuju kumba maam jaañ xuju kumba anta seet kumba ak daaru xuju kumba am nañ ca daam isaa ak daam joor ak jub yàlla yàlla xuju kumba sama ma ju soxna min ci laak seen bi yàlla ak ahmadu yàlla aminte la sa maam lu mu jur wàllu yi la seen wéer lu mu jur garab yi la aminte la maa ko baax jox ko sëñ Jaga Kokki moom ci xëri maam xëri maam waaye soxna aminte loo sa maam mi ngi njëkk a dégg Seex Xaadim borom baraat bi mu am ci Mouhamadou Moustapha Mbacke jàmbaar ja bàyyi si Cheikh Gaynde Fatma borom na pek joxe borom Daaru Xudoos bàyyi si Mbacke soxna mu sa palafité le plus beau le plus riche le noble des nobles te ca bari aminte loo sa maam mi si kàddu gi fi Touba borom rekk de yi jaas yi Cheikhul Khadim ku mu si jàpp xam say kilo xam fa mu lay peesee. baara sa maam am na tuloo am na te xëri maam yaa ba xëri maam xëri maam sa njëw kokki Modou Fakhoudja Ahmadou Bata Ndoumbe sa maam moo jaarale si la ma egg kooku si sant Ahmadou Bata Ndoumbe Ndoumbe Seck ko jur Farimata Seck la bokkal ndey bàyyi Farimata Seck mag baax ñu jox ko maam Maram mu am ci Ahmadou Farimata Thierno Farimata. xam nga dafa faram daa jur maam Mati Mbàkke man joxoon tam si démb buuna moom ca maam ko baax ñoo ko faal waa délai mu am ci chirurgie li bàyyi sëñ Babacar te dafa faram daa xëja si bi ak kan sëñ Abdou Sida baax ak kan sa maam jox maam Balaye sa mu am mu am ci ku baax mam balay sa gor sa mam ay sel ni yëkkat jox mam maaram mam ca ma sàmmati ci mun jox ko soxna Anta Sali mam ci sa moral Sali Sali baax baax jox ko soxna Yaara Tulaay mam ca Maamoor Jaara ak borom kaalu gu weex di simb bu weex mi Seexul Xadiim mi soxna yi dem daju ngor wax fa ngor dafa ngoree dafa ngor ñibbi si di imaamu si leen yi balay suburi sëñ Mbàkke maaram kenn ku ne xam na ni kii xalifa tey yalla fi yag te wér sëñ Bassirou bàyyam dañ kaa yëkkati mu ñew suñu kër gi yek suñu kër baye sandaat sëñ monsieur Fatou Madou mam soxna Fatou Madou mam yaayam Sakhar Fatma mu dul soxna ñaan sama tànn ba soxna may mu dul koddu ball mu ju soxna Fatou ci job yaay mohammed Moutala Mbàkke ci jassil islam bi borom si lislaam ak tek ga ak dox wu wa waaye Sakhar Fatma amintee la ma dem ma gàttal seigne Mor ñaan na ma ju soxlo loo jóob man joxoon ngay ne Fatma man ci sëñ Mbàkke soxloo gaynde gi damel làmba liggéey ngóone damel ne sabaram daa dag ñambaas ak gër ba mi no tawlo loolu jur ngone la ci jóob sa xam na ma ya su ko de gay ba saba yi yëm du ma leen waxi bu ñeuk nu taw ña ñu ña nga wuta daw nu jàpp leen dina sukkuloo fas naar góori damel yi naan bu leen tuba leen wax jóob duma leen maxi gu mujj seen kanu ya tal seen fetel ya dàq leen ta tàkku saan jot ku nako daw daw ku tu daw rey la Saxar Fass ma sa maam maami wàllu yi Saxar ma sa maam maami garmi yi Saxar maam maami maami maami lingeer yi nag foofu ko dogg nag ak lingeer yow boo wootee fii si Touba Thiaroye ñu ne foo wootee ñu ne kër Cheikh moom doon baara moom Alaaji Fàllu koo fi fekk ñu ne askan wi toog tey jii ñii toog askan wi war nag jiitu ji ndax nag sa kër maam fu nu ma sa dem ñun noo leen di buggee garmi boo fi gis mu ne am géwél ne ko bokku ca sëriñ boo fi gis mu ne am géwél ne ko bokku ca moo tax ni bàyyi sa maam ko ba mu toogee ndaat sa mbaay ni ko suq ginaar yaa ngi nii ne waa ji suqi mu ko Abdou déglu dee yàlla ngi wax dee sa mbaay ni tekk war ko ginnaaw taxaw bu dëlee xool Cheikh ma lu muy baara muy ñaq ne surt mbubbam ma bokk waññee mën naa feesu siwu te ba yàgg mu xippi bëtam yooyu nga xam ne ku mu ko a xool say aajo faju ni ko a mën ah, ko waxal éggaleel yàlla wax na ba pare sëriñ baaraay mu du laamin axmadu laamin baaraay am aji Mbàkke samaam jar naa way. dëgg loolu. Sëriñ Baara Siisul Mbàkke. déedéet. reyu nay ju ko yéene la la boo mooy bàyyi Cheikh Abdou Koumba Suuna yàlla yàlla doori leeram. amiin araay mun laamin Ahmadu Lamin Baara Lamin doomu Lamin. ani saaka. tey waay tey waay Sëriñ Fallu moom la nu wóoloo. Mbàkke moom la nu yaakaar. fa nu jëm saakaaya mm. ana soppi Sëriñ Fallu ah. moo jëloolo doy na nu fii ba fa nu jëm ari saakaaya sawaaja si sulu laamin axmadu laamin xol waye du ci gis lu borom kal gu wet bis am mu am mbootaay lo ni wax euh, mbok yu ñew ak famille tay bu doon tay ñu tour de famille la ñu ñew ñe naan ndox ma ñe japp ndox ma ba ndox ma sa ndaa yépp jeex soxna bu sa yeewu su guddi gi doon xol ndaa yi bu mu ubbi fa du du sa ndox xam na ni fajar gi sëñ Bamba na fi ñew and ak mbolo mom soxna bu sa jël ñak sa yenu ak tay ga ak yar ba ak teggin ya mu jël loxoom bu tedd ba tax si si seex ka ni ko doxal nu dem xanaa dégg li ma dégg mu ko ngay leeral dem mu ko waay nan dem ba nooy gee mu jël euh, këll ba def sa lenn daal jël ñàkk sa teg daal di ubbi bunt boppam ba fekk si seex ka ko dugal mu dugg mu tëj buntu ba booba sëñ Fallou ak soxna ma ne ma kunta mi mu bokkal ndey ak bàyyi mu dem jigéenam noo nga salal ba di tuut tànk di nelaw di nelaw laa wax de maa ngi jégalu kàddu yi ndax sëñ Fall du nelaw soxna wu bu sa jël der boppam ba ak kursu boppam nga ak kaala ga daal di toog a diggante ba defe naa bu doon jigéen ñi léegi yi lu dégg gaynde defe naa ni ah, bu nu tal su julli waaye dafa dem moom di julli sa ëtt ba julli sa ëtt ba ba sëlmal tey kursam ngay wird alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Tuubaa ñëw si fajar gi di def la mu daan def ak mbooloo ma ñu jàpp ak di jullee di ñaan ab diir sëñ Tuubaa jógal boppam yore kaamilam ba nagu ci soxna Awa Bousso keroog soxna Awa Bousso nee na keroog du mos a dégg sëñ Tuubaa wax wax ju leer nii doom yi waxee sëñ Fallou mën naa wax ba pare doo xam la mu wax sëñ Saliou Mbacke gis nga ko asalaamaaleykum asalaamaaleykum nuyoo ba doo ngay xam ne nuyoo na waaye la ci des doo ci xam dara keroog soxna Awa Bousso nee na borom lu mu sa dégg sëñ Tuubaa wax wax ju leer yoo xam ne mën na kaa nekk li soxna Awa Bousso nee na bi ko sëñ Tuubaa tiimee dana ko kii Awa Bousso mun ko am kay Mbàkke mun ko noonaa dangaa demoon ci sa dégg ba di root mun ko waaw falaa doon roote ji Mbàkke soxna Awa Bousso mu baax mi ni ko sa dégg ba mun ko xaw tuut nu nekk li si histoire ni Alaaji Fàllu yaayam gaynde ko faatoon sëñ Tuubaa nee na te yomb naa loolu nee fekk ma maa nga mën ko ba di waaj di liggéey suñu borom nee na falaa bàyyi liggéey ba ñaan yàlla digal yàlla jox ma digal waaye la ngay ngay gaaw gaaw di akki soxna woo Bousso ma la may gaaw gaaw man Cheikhul Khadim nee na fekk naa Alaaji Fàllu makkaan ngay digg ba war si ko nee na ga egg nee na fekk naa ko sax koo gay na man la may gaaw gaaw te boobu sëñ Fallou tout le temps xam rek ba kudd noonu sann nit bay nelaw nelaw gi sax maa ngi koy jégul la ma wax sànq rek kon nag suukar bu jógee gën a ji ndox ñëpp di ko nett yi mbokk yi dafa yëgul du yëgoon seey parce que day seey si sëriñam boo déggee sànq ma seey si alaaji Fallu danoo ànd boobu ay tub tàkk woon na xabar ni nag laa ko gaaw nit ñi buñ koy fàttaliku ren ci fay laa neex fu ne nu ànd fa loolu ànd def may naanaan bu mag yore samay sabar dem ci Canada Suisse Espagne man bu njabaay ñabali ci ak Arouna Ndiaye waa Koudou Ndiaye gi rek mu nekk ci rek ren la 39e année fanweeri at ak juróom-ñeent ñu may defal sama baay di ko màggal fii si kër bi altine jàmm la incha allah 18 kon fanweeri at ak juróom-ñeent te kii moo tax. ndax nag heure bu ma demee sa col maa ngi ma mëng su ma ñibbisee moom ma sëñ Tuubaa na ci laa xam ni nag man dinaa dina moom sa détourné détourné bu neex la ma def loolu ma sàkku ma daaw la 38e édition bi sëñ Bari Mbàkke moom sëñ Xaadim Mbàkke moom sëñ Ibrahima Mbàkke moom sëñ Tuubaa daaw la ma kaala si digg mbooloo mi jeexal ma. léegi kon coono maa ngi mën nga xam ne su na sa taw lépp alaaj mu kon maa ngi koy sant di ko mbooloo di ko gërëm. li ko wax ne tey jii Louga laa waroon dem waaye bi euh, bu koro bi ñu tasee euh, sa jullikaay ba soxna si wax bis bi numéro ma ne sama bis ko wax sama bokk foofa a a ëpp la nag tuuti ndax daa dem sa daari sëñ Mor Seck ñu joxe ko fa 1904 la sama baay jur ñu jox ko sa daari sëñ Mor Seck sëñ Mor Seck di ko jàngal alxuraan maali bi ak jéeri Boubacar moo ko fa yóbbu woon dafa ne dee na ndax guerre bee peste bi booba boo dee dañuy takk bug si tànk bi rek sànni kenn du tàmp si bug suul sëñ Mor Seck dem na ba sama baay dafa ne mooy baayam baay rek la ko daan wax kon ba fa sëñ Tuubaa jaaree nag sëñ Mor Seck si ba fasu naaru góor ba sama baay doon wëgg mu jàpp fasu naaru góor ba jàpp sama loxo baay jiital yóbbu ba sëñ Tuubaa mu jox addi mun ko baye da nga gis sëñ Tuubaa mu ne wa man ko ci yow laa lettre ba mu yobu sëñ Mbàkke Soxna sama baye ko bind may yow sëñ Mbàkke Soxna mooy sa sëriñ kon nag këy sa kikin kay kuy napp jaan do fa la jiit et suñu xool seet na ëxu Mbàkke xewle soxna aji Mbàkke yàlla ko yalla bàyyi alaaji boobu moo ko présenté woon ma gis ko nu juboo juboo gii nu juboo te man nag juboo ku géwél moom dafa yóbbu lu mu am jox nu te lu mu am def suñu poos téye mu boole dina teete kon aji Mbàkke la ma kii waxoon si moom alaaji mbub loolu dëgg la kon bisam bi yàlla na seet guy yàlla na ci am gërëm alaaji baara am ci gërëm seen baar moom ko tudde am ci ngërëmu Cheikhul Moussa am ci ngërëmu Soxna Awa Bousso am ci ngërëmu Cheikhul Khadim mi maamam suñu xol seet na buy xam naa ni kàddu yi dama koy yëmale fii rek ndax moo fanaan si mel nii ba incha allah ñu egg sa baas ba xëy na bu ñu sa baas ba alaaj bëgg dina bay may galu maanaam daal boole moom ñoo ko jàngi suba ñu ngi ko jàngi tuuti leer na ma mi ngi nii ba léegi bàyyi kon loolu moo ma may loolu ci kon maa ngi ñaan loolu yàlla na ma suñu borom yàggal sant na mu bég nanu kontaan nañu ñaan yàlla murid yaa ngi nii Serigne Bara Moussa ku jàppale soxna Adja. jarbaatu Seex Abdoulaye. lu baax. mi ngi dem ci ndokk ngeen a te sëñ Fall sëñ Tuubaa dañu taxaw loolu kenn tekkikaay la ñu jëf ci ko boole Serigne Mbaye nii ak Xaadim Seen mi nag ñoo ñooy wéttali aji ci barab ñooy wéttali aji ci barab dañuy toog di jëf ci sayir bàkk ànd ak ci mbooloo yi te bokkuñu bakk boo ko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 sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax te di leen siyaare di jiital nag ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi ak mbooleem njabootam gépp di ñaan yàlla fu waay mën a ne sunu borom dëbb la kàttan roof la xéewal yoo mën a jaamoo yàlla ndax seex mu Mouhamadul Fadal Mbacke dafa waxoon ne jaamu yàlla ci jaami yàlla yi. Ah, te boo gisee toogaay bu rafet bii toogaay bu déggoo bii loolu day dimb te soog a ñëw borom bis bii nag la kenn mënut a fay muy soxna aj Mbàkke ndax yàlla dafa dogal moo ne ci dëkk bi euh, nekk ak ñun te sëñ Tuubaa rek a tax jëmm ji nga xam ne moom laa bëgg a jox kàddu gi muy sëñ Moussa Ndiaye Sikkurulaahi nga xam ne mooy taalibeeb sëriñ sii di Naar moom lañ bëgg a jox kàddu yi mu wax nu bis bii li mu ci gis ak li mu ci xam ak li mu ci namm di ko laaj nag borom bis bi nan la nekk ak ñun ci Touba Thiaroye gii ñu ne mu fel toog maam Cheikh Issa borom njenne mu ngi nii toog moom sax laa waroon a njëkke ci tur wi ndax sëñ Touba dana woon Issa mu ne ko Mbàkke mu ne ko demal la gën ma fekk la fa ak la gën kon moom mii kii mooy yaakaaram waaye nag liggéey bi ni mu tëdd rek noonu lañ ko fas yéene doxee kon sëñ Moussa bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, sëñ Alaaji ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa euh, télé bi nga xam ne ñëw noonu fi di leen siyaare bu baax di leen jox seen wàccuwaay euh, di siyaar soxna si nag bu baax ci bis bu tedd bii nga xam ni mooy bisu maamam. di Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ibnu Xaadimu Rasul sallallahu alayhi wa sallam soxna si nag eh, li mu def rek la war a def ndax eh, nëgë ni war da koo fekk Mbàkke Kajoor waaye ne jaam ñi aw yiw ak yaatal mbirum sëriñ bi moo tax mu defe ko fii ngir murit yëpp mën a màggal Mbàkke Kajoor ñu am ngàntal dem mën ko defe fii ci moom ñoom ci mbégte bu baax a baax nag ndax moom day sunu serigne di sunu jigen di sunu lepp waye nak ñun eh, wuñ ko ab jigen serigne bi rek lañuy xol ci mom ndax eh, bu serigne bi amul won du am ta mom mm, bi ni ñew rek ma ngi koy wax ci yoon wi murid yi ma andal ñom serigne yassine ni di len wax ni mom kat bu dul woon gi mu munta doon ab ordinaire waaw mom bu sant mbacke mu munta doon ordinaire ndax sëñ Ibra Sarr Njaañ tax sëñ Ibra Sarr Njaañ bay di ko sëñ toa def ci mom ñepp deg nañ ko jasaaka yaa xillu ibrahima mawlaaka xeyral jazaa mun a daareeka awlaaka ku ne deg na ko bay di siw siiw la wa kon mom moom eh, bu doonoon mbàkke geet mënta doon ab ordinaire waye nak yalla def ko muy jëm ju woyof nak diko ko diko xajjo ko boo ko fekkee ci sunu biir sax mën nga koo jàppee ab taalibe kese fekk na booba sëtu sëriñ bi la muy ko baax di ko di ko neex a jaxasool ndax eh, woyof na baax na bëgg nañ nañu yëg nañu tamit jàpp na waaw te te te te fonk lool kon noo ngi koy ñaanal bisu maamam bii nag mu yàgg koo woote nu yàgg ko ci wuy si ci barke si Ahmadul Xadim kaana loolu karam daa xadim nu ngi sant bokki taalibe yi fi teew yëpp di sant bu baax nak sonu Muslimatu Mbàkke bintu alaik bara mom Serigne Fallilou nga xamni ni gi muy defe magal gi mom la fi bayam dalun mu nek fi te ouf mourid yëpp xajoo ñep di fi wati bis mak fi fii murit di ko kon mën na wax ni soxna aji ca loolu la roy rek ngir ngir ngir taxawal ka Kajoor ji fi kon yalla nan fi yag te sen barke mom wacc sen kaw nu yag ànd ak ñoom ci dara ji serigne touba jërë ngeen def waaw jërëjëf sëñ Moussa Sikrullahi ñu ngi sant bu baax ci kàddu yi te di la ci ñaanal suñu borom defal la ci tawféex jataay bi ku ko gis xam ne ñu baax ñu yiw rek a fi ne ma Yaasin Ahmadou Bamba mi ngi nii toog Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ak suñu baay Fall bi ndax barab moom bu ne Mbacké Kajoor Cheikh Rafal toog ci suñu biir loolu rafet na njortu kon ma randatu rek jëm ci jëmm ju tedd ju baax muy sëriñ maam seex yenn mii nga xamne wayjur ki def bis bi ak wayjuram juram ñaari wayjur yi jënn jëm rek la kon serigne mam Cheikh jenn bismillah ci bis bi lo ci bëgg wax rek nga bisimilah. jërëjëf sëriñ El assalamu alaykum wa rahmatullah ngi ziar mbooloo ñep di leen jox seen way di ziar bu baax tamit soxna aji Mbàkke mi nga xamne mo wote bis bi tay ñu diko ko ñaanal yalla suñu borom katanal ko dolli ko tawfiq ba limu yene yéene murit ne ci tuba Thiaré yëpp ak bepp mbole murit lim leen yene suñu borom defal ko ci lu kawé njortoon on ne ko sëñ Moussa waxee rek yene ñu tawfiq mo waral mu indi bis bi ba fi ngir bëgg murit yi fi fii barké lu ci bis bi tax bu du woon loolu dañuy dagg paas dem ko yoff waaye bu nu ko wooyofalee defee ko fii ci ñun ndimbal lay doon ci ñun ak tawfeex kon ñu ngi koy sant bu baax ci loolu di ko ci ñaanal li mu ci mébét ak li mu ci yéene sunu borom defal ko ci lu kawe njortam ci Cheikh Khadim ñu ngi koy sant bu baax ni ko ñëpp waxee noonu dem aji day koo xam ne ku ñëw ci bisam bii tey euh, maanaam leb lebal si woo ko danga koo fay si bor ndax du tan xam ne kenn ku am bis boo ko yëgalee soxlaa ji dina ci taxaw def ci lu rafet wax ci lu rafet ba mu ba mu àgg ñoo ngi koy sant baax di ko ñaan suñu borom defal ko gudd fan bu ànd ak wér ak i xéewal yu yaatu li maamam di séddale yàlla bu ko ci kenn ëppale ci barke Cheikh Khadim suñu xol seet na ci baax bu baax ci moom ñun murid Touba Ndiaye suñu xol seet na ci moom bu baax a baax maanaam tasu fi yaakaar yi maamam ni maamam bëgg ab mel ko noonu noonu mel. duggut ci daray caaxaan nekkut ci daray taxawaan nekkut ci leen lu liggéey ak jaamu yàlla ci la nekk teel a wattu alxuraan ak mbooleem téere xam-xam sëñ bi it mu wattu ci lu bari man léeg-léeg ñu waxtaan ci maag moom waaye ni mu ni mu wattoo taw si xaar ma daf maa yéem te loolu taw tawféex la ci ci ci ci ku mel ni moom kon ñu ngi koy sant di ko ñaanal suñu borom defal ko tawféex defal ko jàmm yàggal fi ay way juram ni ko sëñ alaaji waxee way juram ak sama way juram daanaka kenn lañ maam boo jur sa waaj boo ko laajee ñooy la moo kër soxna Anta Sarr moom it bu boo bu génnee daanaka li cëpp boo kee suñu kër lay nekk di di ziare moom kon loolu tawféex la ko Moussa waxee itam ñu ñuy sant bu baax ki nga xam ni tamit moo moo waral lépp uuf ñu tuccu baa caaro yi doon sunu ndey doon sunu lépp muy soxna musi matu Mbacke moo laaj baaram suñu fàll noo ngi koy ziar bu baax moom itam di ko ñaanal suñu borom dooli ko tawféex dooli ko wér ba li mu yéenee liggéeyal maam mu am ci lu ko wen jortal soxna si daal yaa baax du weesu yaa baax bëgg nañ bu baax ci moom def liñ baax ci moom yàlla ko suñu borom defal jàmm taw fi ak Cheikh jërëjëf sëñ Moulay waaw jërëjëf ñuy sant di jëm ci jëmm joo xam ne li nga xam sa borom dogal na nu bëgg koo xam ci borom bis bii mu Cheikh Mouhamadou Lamine borom ne bu nu ko dégloo li ci bëgg lépp danañ ko mën muy muy sëriñ ma yaasin Cheikh Fadal ñu ngi koy sant baax di ko siyaare Serigne Touba daxoon nag defar takkoo waaye takkoo gii mu takkoo nag ak sunu waa ji muy Serigne Moussa mi nga xam ne baatu laa ilaaha illallah rek moom mooy mooy bëgg-bëggam mooy mooy mooy mooy jëfam mooy ab liggéeyam sëñ Mayaas ñu ngi siyaar baax a baax di la ndokkeel ci bis bi di siyaar nga xam ne Serigne Touba dina ko mën aw turam doo lakk kon kooku ñu ngi koy siyaar baax di ko jox wàccuwaayam kon Mayaas bisimilah.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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax nuyu jullit ak mbokkam waaye di leen nuyu nuyu taalibe ak mbokkum taalibeem ñu ngi bu baax chute bii di Baale Fasal TV ñaan suñu borom dafa leen tawfeex bu baax a baax ci dara yi xasaayid waaye di ñaanal baax nag soxna aji Mbàkke di ñaan suñu borom guddal fan wéral ko dal ko katan di ñaan bax sal muslim Mbàkke bind Serigne bara am Cheikh mohamed Faari bi ñu am mbégte bu bax nak ci tew ci bis bi ngir yu bari kon legim serigne bi bolé ak mu doon surtout Cheikh mohamed len bara doon surtout Cheikh ahmed Bamba ñu sëñ maam Seexu dana sekk ak serigne Moussa Ndiaye mi doon sekk moy jikko ji ne ci mom mooy nit ku baax rek doon sëtub sëñ Tuba melo yu ñu gis ci nit ku baax rek lañ gis ci moom te loolu moo war ndax koo xam ne si Ibrahima Sarr Njaañ mooy sa maam Cheikh Mouhamed leen Baar di sa maam baax rek nga war a def. koo xam ne li la war a def nga ko wàcc nga ndax ñun bi ñu yàlla bindee dañoo bind àdduna wàcc na fi ngir ñu jaamu ko wa xalatul jinna wal ins illa liya'buduni maam na di Cheikh Mouhamed leen Baara. magal tay ji dekk bi dekk bi mu dekk dekk bo moy capital yone murit moy mbak kadior fa la yone mourid saso wala laaji bu la laajee fan la fan la yoonu murit sosoo ñaan mooy mooy Mbàkke Kajoor la way jëru wacc sëñ Morom Sali atum jinni ak ñet téeméer ku bax ki wote yone ashin mu atum jinni ak ñet téeméer ak ben yalla dogal wote ko bisu aljuma yone murit woote ko ñaar fan ak juróom-ñaar ci weeru koor bi lu taxaree ba sa ëllëg la suñu baa yoon wi. woote ko ci ndigal borom itam wax yonent moom sa borom nee na ngay def sa saxaaba ci itte te bañ a ne njàngal ko se te kenn ku ne na nga ko yar ci lu méngoo ak moom. itte mooy pësteef pësteef mooy jom moom la Cheikh Moussa Mbacké appelé ñëpp ak Cheikh Ibrahima Fall rabbi azaabak bil himma wala turabbihim bi darsi faaxaat wa rabbi kullu ahadin minhum maa yaliqu maam ji di Cheikh Lamine Baara keroog bi Sëñ Tuubaa sancee Daaru Salaam ndax Daaru Salaam lañ njëkkam ci dëkk moom ku tedd gi 1886 87 88 mu sanc Touba ànd ak 16 personnes ak ñeenti jëriñ ci liggéey bi Sëñ Dame Abdourahmane Lo Cheikh Massam Diop Sam Cheikh Ibrahima Sane Diagne ak Cheikh Ibrahima Fall daf ko ñeenti daara daara ju ne jenn jëriñ nekk fa ñu ne fa 88 Cheikh Moussa feeñ Daaru Salaam Cheikh Mamadou Fall tam feeñ ci 88 bu mujj gi fin at mi ci la feeñ Cheikh Mouhamadou Lamine Baara moo feeñ 92 la feeñ la feeñ ca Touba dëkk boobu na la suñ ba wax ne wal taj'alha zaatal imtilaa'i nooran wa rahmatan bil intihaa'i na nga ko def moom dëkk biir Touba mooy dëkk fes dell ci leer ak yërmande nag waaye nag ci loolu jeex bil intihaa'i ci loolu jeex mooy Touba bi sëñ Baara feeñ jamono dëkk la bopp daa am leer am yërmande waaye nag du jeex wala tajaxalnaha zaatil imtilaa'i nooran wa rahmatan bil intihaa'i bi sëñ Bara feeñ jamono Cheikh Rafal moo wax ne moom Cheikh Rafal maanaam ah doom te du naaj Cheikh Rafal doom tey du naaj mais eh, teg mooy liir bi moo jël tànkam teg ko fi jant bi di fenke liir bi moo jël tànkam teg ko fi jant bi di fenke loolu dafa leen doon niis ndax feeñu Cheikh mu leen Bara yàlla moom Cheikh leen Bara ñi toppoon Cheikh Xadim loo bi njëkk bi mooy mag ñi njëkk ñi jiw na ci sëriñ bi. ci leen suñ duwaa wax ne li ngeen bëgg na am na gan gi te al amin waaye Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam biñ koy dénk di ko dénk boobu yéefar ñoo ko doon dénk nak wóolu ko amin mau ku wóor ki mu feeñ jamono sëñ Tuubaa li mag ñi bëggoon moom moo koy indaale muy Cheikhul Baar mooy loolu bu njëkk topp njëkk bi njëkk topp sëñ Tuubaa moo indaale ngërëm li muy jëmu ah, ku bari niir maa ngi am bis ànd ak Cheikh ci def ngan gu rëy ab diir mu jox ndigal Cheikh Abdou Lahad nan gën a tuuti doxantu tuddi kaat loolu laat na ko ah, Mbàkke ngan gi de mel na yaa tax ñu di ko def lépp lu ñu def lu ne lépp lu ci def lu ne yaa ngi koy defal mun ne ko ku yàlla rus da nga xam ne yàlla dal rus te man yàlla dafa maa rus. ni ko Abdou mu ne ko Mbàkke mu ne ko am na ko war a génn ñii ñii di ñii na ci gan gi am na ku ci war a faatu rus gi mu yàlla rus tax mënut a jël ak ruum fekk doomu du ko jël moo tax ma bëgg ñu ne diis ñëwaat. bi dem ba mu ne ko ci ci ñu togg togg di nga di nga gis kuñ ci yuuxoo maanaam kuñ ci jooyoo mooy kooku la ñu waroon jël bakkanam buñ buñ ne diir ab ab diir rek dégg nañ ku ñu yuuxoo ci ci ci liggéey nga xam ne rus gi ku yàlla rus moom moom Serigne Bara dund na ñeent fukki at waaye laata mu ñëw jamono la ko turam la ko turam jiitu àdduna di fal di fallu mu door a ñëw jamono man Cheikh Ba nee na bu ma gis ma séenee ab ab takk-takk maanaam mu doon ab takk-takk danaa danaa ci xuus maag sama waa kër mu doon ab déeg waaw ah, ku ko yaakaar doo lakk fi doo lakk fan jëm muy jëm joo xam ne waxoon na ne joom joom du ma am mu dee góor mu ne jigéen wàllu leen wàllu loolu la nga xool si Abou Mbacke moom Cheikh moom Amadou Lamine Bara Cheikh Abdou Khadir Mbacke mi nga xam ne ki ko doyoon moom moom rek moo ko denc si njaboot suñu Tuubaa gi donc ñëpp ko doy waaye dana Cheikh Abdou Khadir Mbacke mooy sëriñam keroog bi wujju Cheikh Abdou Khadir Mbacke génne àddina bi si wujju suñu Abou génne àddina Cheikh Abdou Khadir Mbacke ñëw sol daal bari ak noonu mu yaakaaroo woon jël ko sëñ Mbàkke Buso mu ñu ci moom jaar ci Ahmadul Muntaxa mooy li ma bëgg wax mooy sëñ Mbàkke Buso moo doon taxaw néew yi daan jiit daan jiiti julli yi mu dalaat ci ko Cheikh Abdou Khadir Mbàkke mu jiiti néew yi taxaw julli yi tudd doom yi mu dalaat ci Ahmadul Muntaxa gannaaw bi mu doon xalifa la ko mën a doon bi mu ñëwee nag keroog sëñ ko déy bi mu taxaw ci kuus bàmmeel dana ko sama wajuru jigéen dama bëgg mu tabee aljana nee na sëñ sëñ sëñ Abdou ne teg ne ko ne ko ne ko incha allah bu neexee yàlla fa saase la ko sëñ Buxaari ne ko incha allah bu neexee yàlla fa saase la ko sëñ bu ne ko xat sàlla fa la ko sëñ bu neex yàlla mu ko dem àjjana fekk la kon Cheikh Mouhamadou Bara daa fekk daa dafa yar ci la bokk mu benn kéem daan ñeent fukki at képp lu dund waaye def li mu def ci àdduna bi yëpp bëri la foo ay dem di nga xam ne kii mooy liggéeyu mooy capital yi murit kon ñu ngi ñaan ci barke Cheikhul Khadim soxna aji mi suñu borom defal ko tawfeex si yàlla ji ñaan tawfeex sëñ Maxtaar ñu ngi la ñaanal baax di ñaan Cheikh di ko ñaan tawfeex bu baax di ñaan bis ñu bokk ci dajee ngërëm bi ah te bokk ci murid yi gën la Cheikh Ahmadou Bamba te ku mu jubal nga jub yàlla ñu jubal faw yàlla ñu sax ci dëgg faw ci daraje borom Tuubaa alxaqu min rabbikum fa man saa fal yu'min wa man saa fal yakfur wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu jërëjëf saa gaa yu baax yi kon liggéey baa ngoog rek kon noonu rek la ñu ngi leen di ñaanal yalla nak yeen ñi nga xamne sa borom dogal na ngeen tew ci bis bi di barkeelu ci su jëm yu tedd yi sunu borom barkel non ni fasiyene nek ci wañu Cheikh Mouhamadou Lamine para mom Serigne Touba Khadim Rasoul soxna yi nak ñu ngi ni di ay jambar di liggéeyal Serigne Touba waye bi ñu ñëwee ci kër gi nak fi ci wañu ñu fi fekk sunu woy jur wu wu bax wi nga xam ne bi sunu wayjur wu jigéen demee àjjana muy soxna Codou Sow moom mii la fi sunu wayjur yi bàyyi muy soxna maam taal mii moom ñu ngi koy sant di ko gërëm te di ko laaj bis bi yëg-yëg bi ak maanaay bis bi kon soxna maam taal ñu ngi lay laaj loo xam ci bis bi bisimilah. nee naa ko salaamaaleykum waa kër sëñ Fallou waa kër sëñ Baara bis bi de tolluwaay la rek ndax nag Mbàkke Kajoor la waroon a doon waaye daa yombal ñëpp ndax tey ñëpp bëggoon a dem Mbàkke Kajoor waaye mu daal di ñëw rek def ko fii ñëpp mën cee ñëw barkeelu man daal li may ñaan mooy yal na yàgg te yal nañ ko yàgg a fekke ci barke sëñ Fallou wasalaam jërëjëf soxna Maam noo ngi sant bu baax te di la ñaanal yàlla sunu borom guddal soo fan waaye nag am na fi doom ju mat doom muy soxna yaasin nga xam ne mooy Baye Fallou kër gi nga xam ne Cheikh Moudou Moustapha Falilou sunu jàmbaar ja moo ko yoroon mu nekk ak ju baax ji nga xam ne mooy soxna Fat Sow kon bu ko def maanaam soxna soxna yaasin soxna yaasin soxna yaasin nga baal nu rek ngir jëmmi sëñ fallu bis bi xawaay bi lañ la bëgg laaj ak li waral waañ wi ak coono bi ngeen nekk ci sëñ Tuubaa rek tax moo tax ah, allah <laughs> waaw borom bés bi daf maa jël léppam rek jébbal ma ko ni ma ko doon defee soxna maam Faati Mbàkke di ko defal bàjjen mu si noon rek laa koy defalee parce que suñu pap suñu papa amul woon xaaj ak seen ci benn doomu sëriñ Touba waxatuma la ak sët bi suba ba ngoon jot lu doomu sëriñ Touba soxla da ko koy jox te toog moo tax ñun dañ leen di wekk jox leen seen seen seen seen cër ak seen wàccuwaay ba nga xamante ni lépp lu ñu soxla man de xaw ma kan de mais man Yacine géey bépp doomu Serigne Touba wala sëtam ñëw ci man ah def ma doyloo ma lépp lu ma mën suba ba ngoon jot danaa la ko defal bu neexee yàlla lépp lu ma mën suba ba ngoon jot dinaa la ko defal bu neexee yàlla bés bi nag mi ngi nii. li ñu war a def yëpp def nañ ko yàlla nañu yàlla may ñu yeggale ak jàmm ak salaam bu neexee yàlla incha allah. waaw jëwriñ jërëjëf ñu ngi ci ba tey ba tey noo ngi ci waañ wi maanaam jëmm ju baax ji ñu fas yéene jàkkaarloo di ko di ko di ko jox kàddu gi Cheikh Moudou Moustapha Falilou moo ko yar ndax kodd sunu way juri bi muy dem kër sëñ Moudou da ko yóbbaale. jëmm ji doon wax léegi moom mi mooy woy juróom wu jigéen waañ wi noonu lañ fi nekke dañ ne mooy woy wu jigéen waaye nag sunu morom la ndax danoo moromanteeg moom te sëñ Tuubaa rek tax kon soxna Far saw noo ngi lay nuyu di la siyaare te bëgg sa kaddu barkeelu ci bis bi rek bisimilah. waaw rahmaani barke sëñ Fallou barke sëñ Fallou barke sëñ Modou bu sa jàng ma daan yeewoo ca ca kër Soxna Ami Ndiaye moo duggee borom kër gi papay xale yi moo ma booleeg sëñ Modou xaw ma woon sëñ dafa ñëw damaa ñëw jud yaroo Kaolack ñëw fekk fii ci biir kër sëñ Fallou gi léegi soxna si ñëw xale bu ko wéttali Modou sëñ Modou Gueye xëy daal di ñëw yaraax na sama nijaay damaa bëggoon def fas ñëw wéttali si wax bi daa am kenn sama nijaay yombalal ko ko ne ko façon ñu noonu fu la ngi yëlife ko dina ma nekk ak soxna mi fekk sëñ Moodu ba yàlla def li gën bàyyiwuma bàyyiwuma maa soxna maam Fatim Mbacke bu mu fekk ma kii nu mu tëdd soxna ami bàyyiwuma bàyyiwuma soxna ami bàyyiwuma njabootu sëñ Fallou ba heure ba tey maa ngi ci njabootu sëñ Touba daal bàyyiwuma leen maa ngi ci ba tey moo waral fii waaw du démb laa ko yëg du ma du démb ma am xew ma xëy ñëw ñu ñaan na ci kàttanu yàlla yal na eggale sagoom lii ñuy def nii lu ma ci man sama kaw doole man dinaa ko ci def jeex man yoonu sëñ Touba du ma ci sonn du ma ci taay waaw amu ci taal ci sama doom yi mag yëpp ku waafe njabootu boobu géej kenn jooyut kenn xatut kenn deful dara ñëpp ci jàmm lañ nekk fa ma tëdd damay nelaw ba yàndoo te man seulement fi nekk nag waaw man seulement fi nekk kon bu ma amee doole ba njabootu sama njabootu mag sama njaboot yëpp ma mën leen a attan loolu sëñ Fallou la ak njabootam maa ngi sant maa ngi gërëm maa ngi ñaan yàlla di ñaanal sama doom yi nag ci kër gi nag di ñaanal sama doom yi di ñaanal yoo di ñaanal yaasin di ñaanal xaadim bi kii bu ma mari ma raflé ma sama néeg lal bu ma neex laa teg sama bu ma neex ma gis sama dëkk neex moom la waaw. waaw jërëjëf waaw kon jëwriñ kàddu gaa ngi noonu rek di sant bu baax bëgg rek nu àggaat ci biir barke mam Cheikh Rafet ñu ngi leen di nuyu baax gaa yu baax yi di leen siyaare tey ñaan dara bi sëñ Tuubaa Cheikh Ibra sunu borom yàggal sunu ànd bii Bamba joomal Cheikh Rafal waaw Bamba joomul Cheikh Ibra Fall wóorut kon nu ngi leen di siyaare di leen jox seen wàccuwaay te di leen laaj nag liggéey bi nan ngeen fas yéene jëfante ak nun ci bis bi ak lu ngeen ci namm ak lu ngeen ci nar noo ngi leen di nuyu nag di leen siyaare di fas yéene jox sunu jëwriñ ji nu jàkkaar lool nga xam ne nii moom moom day sama xarit moom waaw barke Alaaji Fallu kon bisimilah sëñ bi yow moo Kara kon noo ngi siyaar baax di la jox sa wàccuwaay di ñaan ki dara ji sëñ Touba bis bi ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin bisimilah. auzu boo ñu santee Bakary bu sëñ Fallu waaw. dëgg nag fu ñu jógee lool mais fas yéeneen ñëw rek waaw jàmmarloog ñi waaw Bakary bu sëñ Fallu waaw borom makaarimal axlaa gannaaw nag bu buñ jugee na ngir ñëw fii nii Touba Thiaray waaw bëgg suñu jooni sax bëggoon na ñëw mais xam nga rek ay mbir mais fas yéene ñoo ñëw yabal na waaw yabal nañu ñun pour ñu ñëw yëngal ko parce si kattanu yàlla ak suñu borom waaw fii dina yëngu daal waaw pare nañ pour pour daal def lépp lu ñu war si bis bi billaa walaay taala waaw waaw te dañuy ànd ak tamit ñoo ñoo jàppale nekk si liggéey bi di liggéeyal Cheikh Abdou Karim Mbacké bu Sëñ Fallou waaw billaahi amarga ñu daal pare nañ ci côté bépp waaw pour lépp lu si war a dinañ ko def ñu si kattanu suñu borom billahi wallahi taala aya jabbalu la ilaha illallah bay gare mbo fallu la faalu laa ilaa ilaa laaw bismil ilaa ilaa ilaa ilaa laaw yal moo lu xaa ilaa ilaa ilaa laaw bilaa ma naa ilaa ilaa ilaa laaw yal moo lu xaa ilaa ilaa ilaa laaw Bakare bu faalu laa ilaa ilaa laaw ناريا وفيلا إلا إلا لا الله يا لا لا إلا إلا لا jërëjëf borom Touba jërëjëf Serigne Touba. waaw yéen na yéen ñëw ngeen ki seen kër ndax kër gi mooy kër Cheikh Mouhamadul Fadal soxna Muslim Mbacke mi fi ne mooy mooy doomi Alaaji Baara Cheikh Abdou Karim Mbacke Falilou moom la moom la ko Alaaji Baara baarayel kon yéen ñëw ngeen seen kër ñu ngi leen dalal jàmm di wax di wax ne baat bii ngeen di wax nag moo gën ci li wax moo gën ci wax ji loo man di wax rek te waxoo laa ilaaha illallaah rek yow yaa ngi ci pertement kon yàlla na yàlla guddal seen fan wéeral seen cër ci dara ji àllaa ji fan lu borom dindi jërëjëen jëf ni xaadim Gueye danoo wax ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké sëriñ Touba dafa waxoon ne ku mën aw turam doo lakk kon kooku xam ko wóor na xam ko war na ah, Cheikh Abdou Lahad ñu ngi lay siyaar baax te di la ñaanal yàlla wax ji fii la ñore ndax fii mooy kër sëñ Fallou fii mooy pekk bi fii la Cheikh Mouhamadoul Fadal xam ne caaroy sama pekk la ñu laaj ko lu sa lu li mu gën a bëgg xam koy denc mooy mooy fu ko gënal kon yow la nga doon wax fee fii la ñore ndax fi mooy kër sëñ Fallou kon ñu ngi lay nuyu di la siyaare te di la baalu àq bisimilah. waaw ngi nuyu bu baax a baax di am kontaan loolu ak mbégte di wax jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jaaraama ma Cheikh Rafal waaw di am kontaan loolu ak mbégte teewaay gi ni teew tey ci bis bi nga xam ne mooy bisu sëriñ Baara bi muy Mbàkke Kajoor gi nga xam ni moom la soxna aji Mbàkke moom sëñ Abdou Koumba Suuna di def fii ci Touba Thiaroye. Eh, ju yàgg ko teewe at yi ci ginnaaw ñu teew ko ren ñëpp teew ko wax dëgg yàlla mu doon loo xam ni eh, lu rafetlu la ndax eh, bi nga xam ni lu muy doon jigéen di xale am na taxawaay boo xam ni ya magam yi ko fi nekk taxawaay ya am ci Touba am ko ca Bakke Kajoor moom la am fii ci Touba Thiaroy waaw mu doon bis boo xam ne wax bis bu neex a ñëw la ndax ñi ne fi fekk dalal nañ suñu xel ñi nga xam ne la ahlu nañ ñi nga xam ni e, waaye juróom yi nga xam ni moo bokk sañ sëñ Ibrahima Sane Ndiaye ñi nga xam ni seex yi ñëw nañ ñi nga xam ni ñoom la bokkal sëñ tubaa nekk ci Touba Caaro yi ak Ndakaaru yëpp teew nañ ci bis bi bis nag boo ko wootee nit ñi ñëw wax dëgg yàlla sa jëmm rek a tax ndax ka ko wootee fa ko wootee ku ne xam nga ni Mbàkke Kajoor la waaye bu ñëpp feesee fii ci Dakar sa sa jëmm ak sa mbaax la waaw soxna aji mënuñu wax ci moom lu bare li muy doon doon xale dokki jigéen dafa yor cëru góor dafa yor cëru mag ndax doon xale te taxul nga bañ yor nga yor cëru mag doon jigéen taxul nga bañ yor cëru góor moom nag dafa yor cëru góor dem yor cëru mag ndax ku mu ku ku mu maasee rek bàyyi na la xel moom li muy doon mbàkke mbàkke mbàkke dangay ngay fàtte ni sax moom mbàkke la sax da ngay moom ab taali bi nga ko jàppee ndax wàcce gi mu wàcce boy boppam ak woyofal gi mu woyofal boppam ñun ñii de teg nañ foo xam ni ñun bu manqué ci ànd bi ci ñun la manqué waaye soxna aji moom mattale na lépp ndax yëg gi mu am ci ñun ñun damay wax ne danoo jomm ñun ndax jomm gi mooy sant Mbàkke sëñ Abdou Koumba Suuna di sa baay sëñ Baara di sa maam sëñ tubaa di sa maam waaye foo gis soxna aji rek wàcc na boppam ba mën a ànd ak ñëpp bu ñun ñii amul ci ñun sago fu ñu nekk Touba day bëgg ñu fekk ko fa muy Mbàkke Mbàkke fu mu dem rek danaan day bëgg ñu teew ci kanamam loolu nag cër la nit mën nga koo defal lépp waaye euh, yéeg moom kenn mënu koo defal kenn yéeg borom a koy defal bopp moo koy téyel boppam te moom yéeg nañu faale ñu safoo nañu waaye nag mënuñoo jaaxal ndax li tax mooy ku xam sëñ Abdou Koumba Suuna xam ni mu mel ci kër sëñ Baara nga xam ni moom dafa wàcce woon boppam nekkul koo xam ni da doon daa woote ak sëriñ moom euh, yoon yu la woote muy ak taalibe foo ko fekk mu naa moo lay gën a suufe moo la gën a wàcc sëñ Abdou Koumba Suuna noonu la meloon ñi ko xamul ñi ko xam ci yoonu murit ban koy xam yàggul ndax lan wàcc gi mu wàcce boppam te wanewul kon nag bu teyee tey kii nga xam ne mooy soxna maam Bousso mu tuddee ko soxna jaara muy woote bi ko wooteel fii dañuy ñaan bis bi yàlla na doon ay bisi bis yàlla na barkeel yàlla na doon bis boo xam ne lañu dem a dem a dem ba du xaj fii Touba Thiaroye te yoonu murit ku ne xam nga ni moom ni muy tàmbale ci lu ndaw lay tàmbale waaye ca kaw la jëm kenn dootu ko mën a téye waaw ñuy gërëm nag alaaji alaaji mbub mi nga xam ni koo xam ni wax dëgg yàlla moom ak euh, soxna yi du duñu ñaar kenn la dañuy nuru ñaar tey kenn ndax moom danoo bokk lépp maak moom danoo bokk kër sëñ fàllu bokk alaaji baara mi nga xam ne mooy borom barab bii ñun lu nu am sëñ baara la nu nu mel sëñ baara la moo ñu def ni nu mel moo ñu teg ci yoon yi moo ñu tàggat moo ñu jëmmal bu ñu demee fenn ñu teg ñu fu ñu war a teg wala ñu ñuy wax di ni bàyyi xel sëñ alaaji baara waaw fekk nañ ko fépp nag waaw alaaj baara ñun ñun dañ dañ koy yëg ñun dañ koo dund moo tax dañ koy yëg fu ñu dem alaaj baara dañu yëg moom la ñuy safoo moom mooy sunu lépp lu nu amit ci dem lañ koy am ci darajey alaaji baara ci ci àdduna alaaji baara ñun mënuñu ko wax yal yàlla yokku leeram sëriñ da nga koy man man nee naa leen dama koy waxal sama waajuru jigéen ma ne man bu may tudd alaaj baara damay daanu moo tax du ko bëgg a gaaw a tudd alaaj baara day kenn waaw moom moom moom daa fees dell ci sëriñ Baara mi nuy màggalal fees dell ci sëriñ Fàllu moom moom day kenn waaw ñuy jokk nag sunu sëriñ bi nga xam ni mooy sëriñ Safa Laaj Baara yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko mu doon koo xam ne mat na ko sëkk te matale ko waaw ndax wax dëgg yàlla moom dañuy wax ne du ngeen taalibe ci kër gi doom ngeen ci kër gi ñuy nuyu tamit njabootam gi nga xam sëñ Modou ñoom ñoom sëñ Baaxe sëñ Moutala ñëpp Baye Galas ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaare bu baax a baax am mbégte lool ak kontante ku ñëw ren yàlla nga ñëw déwén ku ñëw ren yàlla bu la dara wuutu ci déwén ci barke sëñ naw ñu nuyu ñoom Sadio ñoom Mbaye Thiam ñoom matu ñi nga xam ni ba ñëw nañ ci bis bi teewe ko te lépp ngir yàlla jëmi soxna aji kontaan nañ bég nañ loo sant nañ yàlla bu baax a baax a baax salaamaaleykum. bisimilahi rahmaani rahim barke Serigne Touba barke Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu Cheikh Abdoul Karim noo ngi lay nuyu te di la siyaare te di la baalu àq nag bu baax. ci yitte jii nga xam ne sa borom dogal na nga def ko suñu diggante ak yow def ko suñu diggante nga def ko sa diggante ak Serigne Touba ndax Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke daana wax naan itte mooy yett bunt itte mooy yett buntu mooy sa jëf ji mu ngi lay nuyu di la siyaare ak délégation bu mag bii ngàndal nga xam ne sëriñ Touba rek moo tax ngeen jóg ngeen fas yéenee ñëw fii ñu barkeelu seen jëmm yii man ma tudd ko Irham Jami Alwara ga Serigne Touba ñaanoon sunu borom tey yow moom nga def si fii waaye nag ñëw nga fun la safoo nag ñëw nga fun la nanne ñëw nga fun la bëgge wàcc nga ci sa wàccuwaay nag sa wàccuwaay bii fii nga wàcc mooy kër Cheikh Mamadou Fadal sëñ Fallu moo ne woon caaroy pekk ma ñu laaj ko ne ko mbàkke luy pekk mu ne mag day am pekkam day am ab ruqam te man sama ruq la caaroy sama barab la nga fekk ci koo xam ne nii nag sa lépp sa lépp muy soxna aji Mbàkke ñu ngi sant di siyaare tey ñaan ki dara ji sëñ Touba seen maam sun borom guddal sa fan wéral la yaa ko àndal ndax nag jëf su rëyee nga xam ko bu tuutee nga xam ko te jëf nga jëf ju jëfal nga ko borom jëf ju rëy mu Cheikh Mouhamadou Lamine baara loolu ñu ngi ci am mbégte nun donga yii nga xam na noo ñu ànd ak soxna aji di liggéeyal Serigne Touba ci barab bu tedd bii di Touba Thiaroye loolu ñu ngi ci sant bu baax di la ci siyaare te di ñaan ki dara jëy sëñ Touba sa maam sunu borom mu guddal saw fan dolli laa dimbali mottili say jéego te wéral la ki dara jëy Alaaji Fallu borom dindi waaye ñu ngi sant ñu ngi gërëm mo ngi lay ñaanal yalla ci daraje samaam ju bax ja ci daraje samaam yu bax ya sun borom mu guddal sa fan lol tagale sa yene dañ ne won nak nu ñew rek siyaar si la war la sunu mbekté mi nga xam tay mom la ñu te mom la te mom la barke Serigne Touba kon loolu fofu rek laay daane la sama kaddu di la nuyu di la siyaare ci mboolem taalibe yoo xam ne ñëw nañ ci bis bii yëkkati seenub siyaar ak seen kàddu jox ma ko ba koroog nag ngay génn nu bal ko sa ji loolu lañ ma ne na nga ko def di ànd ak gaa yu baax yii nag di ñaan yàlla ci dara ji Alaaji Fallu borom ndimbi sunu boroom wéral leen saxal leen ci ak jaamu yàlla loolu rek moo doon kàddu yi. rek kon ñu fas yéenee jox la kàddu gi mbaa boo koo jox kàddu gi rek mu mu muy tànk siyaare ñu ngi lay ñaanal nag fan mu gudd lool akub wér akub ci barke Serigne Touba bisimilah. alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw ba nu sante yàlla buur bu tedd bi julli ci Moustapha sallallahu alayhi yeesal sunu njébbal ak sunu bëgg sunu yaakaar ci cheikhuna ahmadul Khadim, barke cheikh Muhammadul basir ñu ngi nuyu mbokk fi tew yépp di jiital ci nuyoo bi kilifa yu baax yi ma àndal suñ bàyyi ko Touba di sëti Cheikh Abdul Karim Touré sëriñ Abdou Hakim ak sëriñ Abdou Wahab ak sëriñ Abdou Hakim ak sëriñ Moodo ak sëriñ Fallou ñoom yépp ñu ànd ak délégation jóge ba Touba ngir bis bi ñu ci nuyu baax waaye di ñuy it ñu fi fekk te jël nuyoo bi ko teg sa loxo soxna aji nag dama cee matut seere sama diggante ak moom dañuy wax ne sama diggante ak moom mbokk yëpp man la ci gën a jaxasoon man la ciy waxtaanal ñun ñaar boo ñu gisee li nekk suñu diggante muy doom bàjjan doomu nijaay loolu moo nekk suñu diggante ak moom kon ñu ngi nuyu waajuram bu baax waaw soxna soxna Anta Sarr sunu bàjjan ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di wax ne lii ak cant rek la ci ñun ndax xam nañ ne jéego yi ñu dox ba ñëw tuyaabale ci ñun jotaay biñ toog it tuyaabale ci ñun ndax baaxub kiñ koy defal muy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nag daay bokk ci njabootu Sëñ Tuubaa mais mas naa wax ne bi mu feeñee jamono da sëñ Tuubaa waxoon mag ñi na leen li ngeen fi doon wut am ngeen ko kon dañu mën nañoo wax ne kon ñun suñu maam yi lañ doon wut ci feeñ jamono Cheikh Mawlana Bara lañ ko amee kon ñun loolu ci lañ bokk ndax bu ñu defaroo wala ñu am lu ñu war a am sëriñ bi la Cheikh Mawlana Bara nag bu feeñee jamono yi sëñ bi li ngeen doon sàkku am ngeen ko kon ci càgg téef mag ñooñee ñun ci loolu ci lañ bokk kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi koy sante yàlla di ko sant sëñ Tuubaa waaye di ko sant Cheikh Ahmadou Bamba kon bisam bii lu ci waay mën a def ci jéego rek wala lu ci waay mën a def ci ay salaat wala lu ci waay mën a def ci sa ñàq rek defuloo ko Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ahmadou Bamba sa bopp nga koy defal te ki nga koy defal ma wax ne ñemewut bor waaye daa amu fay muy Cheikhul Khadim ndax ñun ñëpp sëñ Tuubaa moo ñu dimbali ñu ne ci ñun sëñ Tuubaa def bu ñu sukkandiku la am tax bu ñu amee jàmm sëñ Tuubaa tax te moom ma waral loole nag xanaa lam am ci yàlla moo ko boroomam la waaye dund ci benn bànneex boo xam ne nag lii Sëñ Tuubaa moo ko dundal bànneexu boppam wala lii Sëñ Tuubaa moo ko neex na ci moom lu di ay naqar ak i coono ak i tës-tës kon nag sëriñ bi ñun mënuñu koo fay ndax dañoo defal luñ mënul suñ bopp defal ñu lu ñu jomm bu doon am njàng rek la. nga wax ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba bakara jeex ba saar wi jeex taxut alquran joji taxut ñu man la top di la jox adiya di la sukul gramal raamal ndax sunu maami bi ñew seigne touba dañu jàngoon ba fees dell xam la ñooñu xam waye musu ñu am ko nga bu sat la ñen nga ngàbbalee sat la di len defal ay tola ki dara di len defal lu mën doon grâce à Cheikh Ahmadou Bamba seigne touba rek la mbir mi fi ne li muy rëy rëy wax ji ci coow li yëpp sëñ bi rek la fofu gis tay ñu diyol ko bamuy fess del am la mu am mboro diko top bo neme buntu këram nit ñi diko rang dalé lay nekk ci buntu ba sëñ Tuubaa mako liggéey ma nga fay tëdd. mag ñi topon sëñ Tuubaa ñu liggéey ko ñu dina rang ko démb ji daal yi bëri ci buntu ba ñako ko ñangi ña ngi ci ñako liy ko liggéey kon ñu duñ ci dara sëriñ bi la. sëriñ bi nak bako yalla yàlla muy muy sëriñ bi bo ko ñam ko bolé muy muy muy muy muy murid yu mag ya waaw ci la ci la defar julit yëpp nek nak waaw waaw dama koy faral di wax dama ne man sëriñ bi dama koy maanaam sëñ Tuubaa dama nekk jëmm joo xam ne man dama koy ñeewante fa ma toll na fa baax ga toll fa mat ga toll te lépp li bànneexu àdduna sëñ Tuubaa dund ko ci ay coono ak naqar ak i tës si ci la nekk ba ni mu ñibbee àjjana moom sëriñ bi xam nga maa doom ni mu neex ci xol sëñ Tuubaa mos a bànneexoo nekk ak soxnaam te yooyu rek bànneex sëñ bi mos lim jir nekkam ba ni mu fi jógee mënoon na doom jii la àndal ngir bànneexu na ne kii maa ko jur sama bànneex la mustaam waaw nekk ak ay noonu yoo xam ne si ne nag maanaam kenn xamul lu doon moo Sëñ Tuubaa daa gore Sëñ Tuubaa ku gore la ku mën a defar ku dul dara la ba pare ba ñëpp teg ko ci kaw tey bu doon defar doom du génn mbokkam waaye daa defar ay bokkam defar ay jàmbur ba ñëpp jag kooku mooy sëriñ bi <laughs> kon yàlla nañu ko yàlla fayal waaw jotaay bi xat na waaye dañ ci dañ ci dañ ciy sant bu baax ku néew lim liggéey na te néew ak dund mooy sëñ Bamba ku rëy lim liggéey te néew ak dund mooy sëñ Tuubaa 75 ans la dund nekk ay tubaab ak i noon Moustapha du waxtu Moustapha ko comme njàpp te lim bind kenn mos ko bind ci kaw suuf ku sëñ Bamba mënu ko ku ko man keneen wax indil ma ko kii dundam gu gàtt nag lim bind ci géej gi lim bind ci jéer ji texte yaa ngi gis boo mosut a gis te sëñ Tuubaa ko bind ba boo nekkul ci jàmmam nag ñu koy yóbbu fee ngi dégg di ko téye diko wax wuto ko résidence wa ñu koy surveillé guddeeg bëccëg te mos moom boppam te sëñ Bassirou nee na ci mënul baax a dem ci diggante bobu ñu ñok ko bi yépp ñu koy ñu koy ñu koy téye sëñ bi amu benn waxtu wo xamni ne si dina tim ñam diko lek wala mu tëdd di nelaw 1912 ba 1927 lool nit mënu ko nit ku yalla bind rek nga yor ruubu di da nga soxla woon da ngay nelaw da ngay sonn da nga soxla woo xiif da ngay lek sëñ tuba yépp yëpp jaaru ci nek ak non yo xamni ci si ne kenn xamul lu mu doon kon sëriñ bi rek la yalla ñu yàlla sàmm te sàmm ñu bopam te yàlla taxawuñu bu baax te jàppalee ñu te fayal ñu sëriñ bi suñu xel dal na ci waaw ñun suñu xel dal na bu baax a baax a baax ndax sëriñ bi lim ñu wax ñu gis ko moom lañ gën a gëm sëriñ gisagut waaw te moo ñu digg àjjana ñu gëm ko waaw <laughs> waaw aw leen fa ngeen war a aw rek bu boobaa du yàgg du ma fa yàgg loolu la wax kon duñ fa duñ fa yàgg na xam si na alfa sanatin door ñoo attee sëñ te si ma sàmm ju boobaa yi du ngeen ko du ngeen ko fekkee loolu dal nam xel loolu na ku moomul ku moomul mbir doo ko doo ko joxe sëñ bi dañu waxante dëgg man li ma moom sama waxtu bee ci mbedd moom su ma neexoon ko sëñ bi maa ko moom moo neex sañ naa ko maye sëñ Tuubaa nag daa liggéeyal yàlla ba moom àjjana sañ koo maye ku dul moom sañu ko nit ki nag moom liggéeyal yàlla ba mu moom ko téye ko ba téye kii titre français bi moom rek la sañ a maye sëñ Tuubaa nag liggéey gi mu liggéeyal yàlla ba yàlla fay ko mu téye àjjana moom ko moom lépp ku neex mu yóbbu la fa moo ko sañ a maye. sëñ ma sàmm jëf sàmm la ko wax bu doon bu doon àjjana bu doon xotti gerte ma jox la ko Masamba Diop Sarr mu ne ko foo bëgg a faatoo mu ne ko kajoor lañ ma xamee waaye bawal bawal bawal bawal lañ ma moom waaye kajoor lañ ma waaw nit ko xaw a jàng bi sàngam ngay faatu kon suñu mbaam ko xam yoo xam ne si dafa néew wax ci ji jamono waaw waaye sëriñ la <laughs> yal nañu yàlla sàmm te téyel ñu boppam te jàppale ñu boppam ñu sant bu baax nag yow sama wóolare nga li ngay wax maa ngi koy fàttaliku man nag nii laa mel man fu ma jotaay bu ma toog waxtaan kenn na sëñ Tuubaa laa fay wax bu ko génne dootuma wax ndax man ku ma mbër ku ma jàggiruur te Sëñ Tuubaa moo ma jàggiruur asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf waaw alhamdulilahi rabil alamin noo ngi santaat yàlla bu baax li julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moom moom ñi ne li laa ko bëgg nag ndax bi Cheikhuna Ahmadou Bamba nekk si liggéey bi Alaaji Baara moo ne bi sëñ Tuubaa nekk bi bi sëñ Tuubaa nekk si liggéey bi dana ko loo bëgg mënu ko lépp. kon lepp lepp nga ca waye mo mi nga xamne sa borom dogal na nak mu sunu cër nun nun sant na nun waaw nun sant na nun Touré yalla na la fi yalla yagal te may lak wer wér ma feggoog Serigne Touba Touré di jambar di poète bo xamne ni way woy mu tedd wa muy Serigne Sadibou Touré ñayu xarale ko Serigne Touba noo ngi ñaan sunu borom yok ay leeram taas na ci barkeem ku bëggoon sëriñ Touba ku ko xamante di ko xamle kon Serigne Touba liggéey baa ngi nii rek ñu déglu la nga am rekk loo dolli ci kaddu sëriñ bi ndax bu boo fi njëkkoon ne yaa koy njëkk wax jëmmam ji yaa koy njëkk a wax waaye dangaa génnoon nag kon moo tax nu bëgg nga barkeelu ci kaddu yooyu bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateurs yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di ziar bu baax sëriñ bi ker moom kenn du ci dolli mbaar waaye xanaa ñu def ko ngir laa taf alu chayan bi xayri isnin fal isnu sartun fi xabuli chani sëñ bi ci sa ndigal ñoo ngi santaat bu baax sëriñ bi ci tawféex gi mu ñu defal ñun waa Touba Thiaré gépp ñi am ngant dem Mbàkke Kajoor ñu indil ñu Kajoor ñoo ngi daan ñaanal soxna Aji Mbàkke suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ci barke Sëñ Tuubaa bis bi nag àttan na lépp ndax borom bis bi borom bis bi moo ni woon yàllaa ma gindil boppam yàlla ma yaral boppam yàllaa ma xamal boppam yàlla ma nandal fa mu nandalee gaañu baax na hadaytani yaa hadiyan alamtani saxaytani ka sa sifa rabaytani kat bi ne ko sëriñ bu naw sa cosaan bay weddi lii ma la wax yëral mu naw yëral bunyaan kon nga naw sëriñ baara faj aajo moo ci gaaw lu mu wax yàlla ni waaw day fal di fol ci lu gaaw mat naa ragal ci xarnu bi Cheikh Mouhamadou Lamine moom la sëñ Tuubaa bindoon lettre ba ni ko asalaamaaleykum ni ko faalam yaa Mouhamadou Lamine sa tanaalu maqaaman yax bi ko fii i jamihu am salika yow Cheikh Mouhamadou Lamine man sëñ Tuubaa maa ngi lay wax ni di nga am maqaama moo xam ne koo jamonoonteel dala ciy ñëwee ni ko yow Cheikh Mouhamadou Lamine na nga xam ni وكل من كان معك لا يرون الا ما يسرهم وينفعهم في الدنيا والاخره مبولم كو اندك يو يو شيخ محمد لامين دو غيس لودول لوكاي جارين اك لوكاي بيغل ادنا الاخره نيكو يو شيخ محمد لامين نغا خامني ني اندك يو ييب وخوم يدخلون الجنه بخير اساب نيوم نييب دانن دوجو اجنا تكن دولن اساب niko yow Cheikh mohammed Lamine nga xamni lettre bi mala jox bul sikki sakani ci yàlla la joge jaar ci yantou sallallahu alayhi wasallam ñëw ci man ba noppi niko wallahu ala ma naqul wakilun lolu nak moy seigne touba seigne touba ne la minde fépp tële lama yàlla yombalal yasarta li ma ahjazal baraya wali tuddiimu abadan bisraya seigne touba ne sama yengok sama dal mo gënal yàlla mbolem jëf yu baax yi wa harakaati ya iñalan wa sakanaat laka ahabba min jamil asanaat Serigne Touba nee na mosuma def lu araam mosuma def lu yàlla sib man sëñ Touba laysat jawaarihi tamilu lil haram wala li makruin wa fustu bil maram Serigne Touba nee na li ma wuteeg mindee fi xam nga lu wuti sëñ Touba ak mindee fi nee na mindee fi bu dee dañuy jaamu yàlla giirug jamono maam aadama ba këy mujjee juddu sëñ Touba nee jaamu yàllaam benn weer kawe na ko. wali jaalte bi ka kulla shahrin fawqa ibadatil wara fi dahri sëñ Touba nee na mboolem gaañu baax ñi ngeen dégg. li ma yàlla may réer na leen yàlla may na ma loo xam ni mboolem gaañu baax ñi amuñu ko waaye ci samay aada la ma ko maye li xutta fii jumlati aadaati maa xaabahan akaabiri saadaati sëñ Tuubaa nee na samay nelaw bu doon damay nelaw sëñ Tuubaa nee samay nelaw yàlla da koy boole mu yemaleeg naafila mbóori mi dee fi giirub jamono اجعل منامي kal khiyami والتكفني wal وأخرى مكرا te nee samay nelaw jamu yàlla la naw mi ibadatun li rabbil laa sharika qalbi yudabir ayatu rusuli kama kon nak ñongi santat bu baax ci fekke giñu fekke bis bi eh, di ñaan ci barke Cheikh Mouhamadou Lamine sunu borom nangul ñuko eh, defal ñu ci tawfiq ndax inda zikru salihin tanziru rahma lolu rek jarna di di magal gañu baax ni di leen fàttaliku di leen waxtaanee ndax loolu day wàcce ma yërmandeb suñu borom ñaan gi ñuy ñaan di leen di ñaanal suñu bopp la ñuy ñaanal ndax isid duhaawu yan fawul mayta fil xubuur wa yan fawul ayya wa yujibul ujur kon nag loolay kàddu yi ñu ngi ziyaaraat bu baax euh, soxnaa ji di ziyaar bu baax sëriñ bi moom maamam bu Jibril daan ñëw ci sëñ Tuubaa jëmmi maamam lay yor sëñ Abdul Karim Touré loolu rek doyoon na ñu xam ñu xam seen dayo euh, Touré Touré Yaram ñoo ngi lay ziar bu baax ñoo ngi ñaan nga yàgg fi lool te te te ànd ak wér ci barke sëñ Touba sëñ Touba nag kenn xamul lu mu doon sëñ Touba nee na yàllaa moom mindee fi waaye li gën ci mindee fi jox na ma lakal wara wali xutta xayra um wali siwa nax wi ya suxta dayra um moo tax sëñ Bay jaxate ni ko la dee fi ut tey jii lépp ngi fi yow la dee fi ut nekkatul màkkaaki faasa ki xaaj niko fu as ndariñ musa nek ak barke jug fa tay ay xote de sopu ahmadu yomi yadi di nga ñaay ba nopi waxat niko murid yi mu andal rek ñoo gën serign sa won bu bis penc ba wax ji ngeen xamni lu wér la woon <laughs> waaw kon nag yàlla yàlla dooli jàmm bu baax jërëjëf jere jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf jëf kon loolu mo doon jotaay bi waaw ndaysan a Cheikh Sadibou alhamdulilah alhamdulilah amin barka seigne baaraay Madu Lamin Mamadu Lamin baara ku la way am ndam baari saxaaya baaraay Madu Lamin Mamadu Lamin baara Aziz sama may sunu mbër baari saxaaya borom tay fak bay laa barke Cheikhul Khadim di nuyu nak soxna mam bu su saar mu toog nga xamni olof Njaay dafa wax ni luppum nday lu mu lax lax lax do man na ca tok ta tay ji mo fi soxna Anta Sarr ndax bi ñuy dañ na won bu nu añee ba nopi Serigne Saliou Mbacké mi ci mbaxam gi daal na na Serigne Massamba ngi ñëw nañ ko ne ba mu ñëw ñu yëkkati suñuy kàmb waaye nag li war a baax ba tolloo ci baax day gën ndax soxna Anta def leen a jur ñoom ñaar kenn ku ci ne nag xam na fam la war a jure liggéeyal nay nag ak kam ko séqaloon waaye maam Bousso mii dafa jël jëmm ji def ko muy am sëriñ tubaam na Serigne Touba Mbakke ànde woon ak seen maam moom noonu la àndeek soxna Aji Maam bëggul mu bëggul mu xiif bëggul mu mar bëggul dara lu ko naqari lu dul bëgg fu mu dem gën barke Seexul Xadim fu mu dem rek bëgg na mu gën fu mu wane daan loolu nag fa mu bokk la seet ndax soxna Anta wax na ne ma bi muy gone ba nii mu nekk mag loxoom jugut ci moom lu soxna si bëgg rek bëgg-bëggam kon mi ngi mi ngi ñaan bis bii mooy defal maamam ju baax gi muy Cheikh Mouhamadul Lamine ak sëñ Abdou Koumba Suuna may woy juróom bu tedd wa yal nañu ci yàlla jotale ci barke Serigne Touba ndax nag wax ji li muy baax baax baax Cheikh Abdou Karim Mbacke Falloul dafa wax ne wax jàmm ñaan jàmm da koo gën wax jàmm di ko ñaan da koo gën boo ko dee wax te ñaanoo ko doo ko am moom mii mu wax ma ne ma sëñ Saliou dama koo jàpp te bëgg ko loolu ndax maamam ju baax ga soxna faatu mbay Baye Fall la juróom wu jigéen wii soxna Asta Sarr mii yëkkati woon jox ko mu rafet lool ànd bi rafet lool soxna Fatou Mbaye Baye Fall am lu mu jëf ci moom ci lu ma fekke su masaan di tayyel loolu ak tayyeelu njàng yaayam danañ ma jëlal nga yóbbu joxal ma ko Fatou Mbaye Baye Fall kon balle sa bu bu meññi ki la meññi ngi mel na loolu ñoom olof Njaay ne ndox di tëppax gataay bii lu mu yàkkamti woon la ndax bis bii ngay defal sëriñ Mamoor Jaara boroom saam ci dëkk bii di ko defal Seexuna Ahmadu Bamba yëg na cër bi nga ko ci jox yëg na cër bi nga ko ci jox ne fa tabaarkàlla mbokk yi law la ca waaye ne dafa am foo ko teg moo tax bisub Seex Ahmadu Bamba bis muy bisub Seex Muhamadu Lamin Baara bii ah nag seen diggante ñaar xam naa ci lu wér loo xam ne nii Serigne Touba rek laa koy seere Serigne Touba yi rek laa koy dégg muy da ngeen a jàppante te yàlla tax bëggante te yàlla tax ngeen fént te yàlla tax kon loolu mbaa yàlla na jëm kanam ci ak si sëñ ma sàmp jëmm ji niitu ci caaro yi bii ndax jëmm ji waaw niitu ci caaro yi soxna musli ak la ko war ci moom soxna mbenn mbàkke ak li ko war ci moom soxna mbenn faal ak li ko war ci moom waaye kii moo bëgg jëm ci moom lay ñaan ànd bii yàlla nañ ko sëriñ Tuubaa jël sëriñ Tuubaa nag ko mën fay fayal ko liggéeyal mu fay dafa am waaju baax lu sëriñ tubaa amoon gan ci kër mu yëkkati ko tëkk ci loxol Cheikh Massamba ne ko Massamba mu ne ko Mbàkke mu a laaj jëmm joojee nit ci biir kër Serigne Touba Serigne Touba def loo ko dara ndax jotu ko waaye Serigne Massamba ñu ko nag mu génn da day na li muy liggéey bi mu génnee di liggéey am ko daje mën na ko looy liggéey mën na man ak ministre la damay liggéey ak ministre la mu ne kon kaay nga liggéeyal ma sama bang bay dafa daj daañu ko daajal ko naka la waa ji nga teg pont ba bay daaj rek Serigne Touba la tëll ci ci maanaam ci néegam yooyu ma sàmm ana diw mënu ko bàkkee ci néegam la séntu ko waaye gisuma ko mosuma ko wax. sëñ Massamba Moustapha sëñ Touba ko suma waaye dina néegal ma séntu ko ma dajeeg moom ci bunt bi mu bi sëñ Touba ne ko sa waa ji dee ngi lay laaj mu ñëw ne ko foo demoon mu ne ko mbàkk damaa génnoon mu ne ko loolu def ba nga mu ne ko dama doon liggéey mu na ko la ba ba ko fay na la mu ne a ah, fay na la mu ne ko kon dellu delluwaatal ma fay la ci waxtu woowu dellu mu fay la mu ne ko ah, Mbàkke kooku benn yoon laa ko liggéey mu ah, ma maa ma ta liggéey lay fay tey fay la ëllëg fay la ba ilaa yawmi diin kon ko mën a fay kooku moo ma ta liggéey booy juróom baax wi nag la wax ne bu ñu dikkee man man la seere loolu foofu maam Bousso ñu ñëw fekk jotaay bi Mbàkke ñu ngi leen di sant bu baax noo ngi leen di gërëm bu baax di ñaan Sëriñ Tuubaa mu lafar leen kat yal na leen ca seex ci barke seex waaye nag gërëm na ma dem ndax mag sa taawu ngay maa sa taaw si taawu ko benn bëgg na ko yërëm na ko am na fa ko fa maamam ju baax di tegoon Seexuna Ahmadul Xadim rek fa nga gëm kon bàkk na gisal bu baax ñu ngi gërëm bu baax a baax a baax day ñaan yàlla yàlla ñëw ñu wax la ko loolu rek moo doon léegi gii mu ko defee war na ko la ñu noo bokk benn benn benn fenn fu kër ga yaatu na man na faa nit waaye ndeyam dana ko bisu Serigne Baara ten ko Serigne Baara kër Serigne Fallou rek da koy moom moo ñu ma ne ko lépp tegu ci ndigal nag ba lii muy def nii lépp ci ndigal ak ndax ak manu ànd ak moom ca Mbàkke Kajoor lam yóbbu ci ay ginaar kenn xamul moom toll ba àgg dana ma da koy partage man li ma ci am lu néew la sama bokk laa yëg ni sama bokk laa bëgg ñu xam ne damay sant ci Serigne Touba doguma nak yekuma way ñoom la ko bëgg jëf nako ñet ñaari at yo xamne ñu ñun lu mu mas a yóbbu jébbal ay ay ay ay ay ay bopp kon duboo naa ci loo bayam bu baax ba xamal nako rañu ràññi woon na ko loolu Mbàkke loolu moo doon ndax nag sa tabarkal picc su waree fekk tool tool fekk si picc sant rek moo war tamal li ngeen dana war di waxtu ne ñooy ñëw ci yéen waaye yéen ñi li ngeen nu tamal neex ba sëñ Tuubaa la ñeen sëñ Sadio ma leen kàddu jërëjëf maa mosu su ma xool si dina guy su ma xool si dina guy saam سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان والجنان سفر ساسات وتكفي كثيرا من حتى الكتاب وقبل متاب يا سستيعي يا خير خير خير تفضل سلوا وسلموا aleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi ci ñaari sant yàlla sant sant Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul sant ñaanal Seex Muhammadu Seex Muhammadu yàggal ko fi te wéral ko ko ñaanal Sëriñ Cheikh ko ñaanal jabootu Sëriñ Tuubaa ak taalibe yi Sëriñ Tuubaa ñoo ngi wàcc si ci jataay bi mag te sell ziyaare bu baax kilifa yu tedd yi ñu ngi leen di seen sell bu baax ñu koy ziyaare di wàcc ci wàcc bi nga xam ne moom la suñu borom di ñaanal jàmm taw bi ki ndam xéewal ak suuf ci noonu ñu ngi xam ne moo waral bis bi tey di suñu mbokk di suñu mag di suñu xarit di suñu kóllëre ñu di ko siyaare bu baax daal te di ko ndokkeel bu baax ci bis bu mag bu teg bu sell di ko ñaanal lépp lu mu ci def te fas yéene ko sante maamam jooju sëñ Mouhamadul Amin Ba ko suñu borom ma di sama borom ful ko ci barkeb sëñ Tuubaa xëy na kàddu yi ci yëkkati kàddu yu gàtt rek la ñu bàyyi waaye kàddu yu seer la ñu suñu diggante ndax yàlla dañoo ci jëmm ju te sëñ Saliou yàlla def ñu bokk lépp waaye di benn yàlla defit bañ ko bañ bañ ko dalee xam ci keppaaram tey yàgg na lool mu jàpp sëriñ bi lool jàppin waaye jàppin bu yàgg te jàppin bi saa bu ñu xëy muy gën di yees tey gën di rafet tey gën di taw dolliku ci mbokk gi nga xam ne suñ borom boole nañ ko ba noppi ndax mbokk gi moom am na ba noppi mbokk li muy baax baax daa am lu koy daa doxal ndax ak mbokk ak kóllëre goo gis ñaar yi koy doxal benn du ci sax karaw wala boog ñett yi koy doxal benn du ci sax karaw muy aw laaj ak i loxo ak tànk benn bi sax kanam waaye ñett yooyu benn mënu cee ñàkk ngir mu dox benn mënu cee ñàkk ngir mu dox waaye bu ñett yëpp ñàkkee boobaa dootul doxati yàlla dogal na mu jàpp sëñ bi lool waaye jàpp na waaye bu sëñ bii ne woon tey damay ci fonkeel gi ko fonk ak ñun liñ ci xam su ne woon damay rey ginaar tey sama kër ne ko soxna si bëgg naa nga teewe ko walaay lancé dana <laughs> muy woote ab bis eh, bis bi sëriñ bi di woote fii muy ñetti fan ñetti fan yëpp da koy ànd ak moom ba mu jeex ci bis bu nekk loolu fonkeel ak yëg ak safoo jàpp naa ni mënta mënta paase loolu ba noppi it yëkkati ay addiyaam di ca def képp kum xam muy nitam mu ànd ak moom ñëw ca eh, noonu mu ko jàppee it noonu la ñu ba lu nekk mu ànd ci ak moom waaye damay wax ne bu ko jàppoon moom dong dana nu doy sëkk ngir ñu jàpp bu ko jàppoon moom dong dana nu doy sëkk ngir ñu jàpp asumaan nag mu jàppale kon nag ñu koy ñaanal bu baax Mbàkke suñu borom bisam bi sama borom defal ko ci tawféex defal ko ci ndimbal ak sutura barke ba mu cee dogu ci Cheikh Mouhamadou Amine suñu borom defal ko ci njortam teg boppam sëñ Tuuba tawféex la nag ndax woo gim ñu ci woo te muy bisu nit ku yàlla gërëm ndax damay wax ne bu fekkonte ni day doomi sëriñ Tuuba kese war naa tax ku ne daw song ko ngir sàkku ci moom barke su maag muy doomi sëriñ ba noppi di jàmbaar di ndax yàggu fi waaye yii teg barke boo ci xool di ko gis ci moom waaw ndax ay doom day teg day te tey jii foo foo xool da fa gis njabootu sëñ Bara euh, day tegtale barke te foo xool da gis njabootu sëñ Bara xam-xam day tegtale barke ndax seen Mouhamadul Amin li mu bind ciy téere kenn xamul mu toll waaye it euh, ku taxaw ci sa barab mbaa mu taasu ci sa barke ñaan lam ñaan mu gis ko loolu it day tegtale barke te yooyu yëpp mu ngi ci sax Mouhamadul Amin ci kon alhamdulilah kon buñ ko wootee bis te Cheikh Mouhamadou Amin yàggu fi waaye yàqu fi dara. te bi fi sëriñ bi ne la tàmbali boobu sëriñ baa ngi fi di def li muy def waaw di def li muy def ku ne xam na ni peste bi amoon ci jamono sëriñ bi ba mu ca bindee dana képp ku ko gis su la tawat ji dalee day wér waaw ah. mooy yaa rabbanaa yaa rabbanaa su fekkee dalagu boo ko xoolee du la dal te boobu sëriñ baa ngi fi eh, koo xam ne njabootu sëriñ bi la nag sëriñ bi ne fi muy def yu mel noonu moo lay wan ni la war a ne ci moom lépp nga ca kon nag alhamdulilah bisam bu ci sëtam wootee di sëtub sëñ Baara direct woote ci ku ca teew mën ngaa rafet jot ci sa bopp ak ci sa mbirum kon nag ñu ngi ko ciy ndokkeel bu baax moom soxna ji di ko ànd ak moom di ko ci ñaanal suñu borom defal ko ci tawfeex ndimbal ak sutura barkeb sëñ Tuubaa wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa salaamu laahi rahmaan rahiim yaa rabbanaa innal waraa tadara li awliyaa'ika ma'an yashaa Yeah, بمر رزاق وياتي كل من القوم شيخ عالم وليم من نمر بالبيذكر وعلادي من مراق من مراق من مراق بعال وندوى بدا من مرا بمرا من مرا بالمرا من بالإزارة كل خبير كل خبير بأنواع قلوب ما يهم مريدنا زواجي سونا وزغا يملي نذي أدمع كل البريات يما بدخوان يما بدخوان يما بدخوان سوس النفس جملتها والله بنا أولى شديد yo رب الجنان وينجينا من النيران وعلى آله وصحبه الفرسان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الإنس والجان ورضي الله عن عبده وخليله وأبيبه وجاره وخديم رسوله شيخنا أحمد بمبا وبعد إخوة الإيمان حاضرين الكرام والحاضرات نعيكم بأفضل التحية ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Cheikh Sadibou Touré daan na wax naan dama leen a nuyu ngi leen di ngi leen doonoon ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci jumaadal ula ñoo ngi ñaanal Serigne Touba Cheikh Mountakha mu yàgg fi tamit ñoo ngi koy ñaanal mboolem njabootu sëñ Touba ji ñoo ngi koy ñaanal mboolem taalibe yi jiite ci Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda moom Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi ziar mboolem ku teew ci bi Serigne Salih Mbacke maa ngi lay ziar. moom Serigne Khadim Mbacke moom Soxna Mame Faty moom Mame Mor Diarra borom Saam maa ngi lay ziar baax Mbacke Balla ñoo ngi lay wàccee sa wàccuwaay ñoo ngi ñaan seen bëgg yàlla defal la ko ku sant Mbacke di waxtaanee nekk sa waajur wa sa sëriñ wa def Sénégal yal ko yàlla doolee fayal maa ngi Soxna ji Mbacke. bintu Serigne Abdou Koumba Suuna moom Cheikh Mouhamadou Lamine moom Serigne Touba Mbacke Balla maa ngi lay maa ngi ñaan sa bëgg yàlla defal la ñoo ngi bég bu baax ci tawfeex gi ñu gi nga ñu defal mënuñoo dem Mbacke Kajoor nga indil ñu Mbacke Kajoor ñoo ngi la ci sant bu baax di la gërëm di ñaan sa bëgg yàlla defal la maa ngi ziar sama baay yi toog. kenn ku nekk ma mën a lim turam waaye su lim amee rek daanaka waxtaan wi mën naa ba ñaaw mel ni mu war a mel waaye ñoom ñëpp xam nañ ni samay bàyyi lañu ak samay mag yi xasida ahlu xasida yi waaye bi ma wooyee ni ma dama doon hésité di la woo waaye ma laaj sa bàyyi Serigne Fallou Mbuub ndax ma woo sëñ Touba Touré mbaal de Mbacke Kajoor mu ni la woo ko keroog laa la di fomm naa Mbacke Kajoor ndax yow keroog laa ni ki wax ni moo moo moo la ni nag ma woo kooku fu ma woo ma bàyyi fépp fu ma doon dem nega ni barki démb rek la ma sëriñ Abdou Aziz Mbacke moom sëriñ moom sëriñ Baara borom Touba yëmbal boo ni ma damay feddali si kóllëre gi ma amoon ak Cheikh Saliou ci yow ni ma damaa bëgg suba démb commission bi nga demal ma fa Lamp Fall waxtaanee sëñ Ba bisu màggal gi nag boo ñëwee dina ma neex lool bi ma demee ba waaj xalaat ni waruma fee romb Mbàkke Kajoor di dem Mbàkke Kajoor moom laa wax sama bàyyi sëñ Fallou ci biir ñoo ngi ñaan suñu borom dooli jàmm ñoo ngi ñaan suñu borom dooli tawféex suñu borom dañ koo war di ñaan ku ko ñaanul rek daf koo wetti ud'uuni astajib lakum inna alladiina yastakbiruuna sayadxuluuna jahannama daaxiriin yàlla nee na ñaan leen ma ma may leen ku rëy ci sama jaam baban maa ñaan kooku naa ko tàbbal sawar ñaan gi bokk na ci mooy màggal sa borom toroxlu ci kanamam xam ni bu la mayul doom yàlla suñu borom lim la defal kenn mënu ko sëñ ma yaasin هو الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم فهل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون yàlla nee na maa leen bind wallaahu alladi xalaqakum summa min nutfa summa min alaqa summa yuxrijukum tifla yàlla fàttali na doomu aadama boppam yàlla la bind ci suuf maam Adama suuf la ko yàlla bindee kullukum li Adam wa Adam min turab ginnaaw Adama ak Hawa ñu bind ci faaram yéen ñëpp fi ngeen jaar mooy ndox mu jóge ci góor di dem ci jigéen suma min nutfatin suma min nut ah, suma min alaqa noonu la la toggee ci biir jigéen ba suma yuxrijukum tiflaa nga génn doon nit fàttali na la sa bopp fa yanzuri الإنسان بما خلق خلق من ماء دافن يخرج من بين السلب والترائب يا يلا الله هذا آدم جسانا كن موني بند ثم رزقكم ورسك مولا سرين توبا نينا ولك ورسك يلا جي بنا في دجال كلام كل الموم لا تأكلنا أبدا نسخلينا في كل إن ثم تعبدون سوا سرين توبا نينا بدنا نغنى كتير di lekk wërsëgu yàlla gi ba noppi bañ koo jaamu sëñ Tuubaa ne ku koy def ku tuur ba faatu sabara la jëm وإن تكن أكل رزق الله وأنت في كل زمان الله ولم تتب لطلب الغفران مجتهدا فداخل النيران kon moo ñu wërsëgal sëñ Muntaxa nee na jàmbaar taxuta yaa ko taxuta ñàkk ku yàlla dimbali rek a fi nekk jàmbaar taxu xaar yaa bus taxut a ñàkk ku yàlla dimbali rek a fi nekk yabsutu risqa liman yashaau wa yaqdiru summa yumiitukum summa yuhyiikum yàlla leen rayoon ba noppi dundal leen hal min shurakaaikum man yafalu min zaalikum min shay'in ndax yéen kenn mën na ni moromam kon subhaanahu wa taala maa sirkuun boobu la buur boobu la buur Serigne mooy kenn ki amul ñaar saa su nekk day gën a màgg mbir wa waahidun ma indiko min saani walam yazal jalla azima shan boobu la li ñu war suñu digganteeg moom ginnaaw bu ñu koy ñaan war nañoo dëkk di ko sant ndax sëñ Touba jàngal na ko. sëñ Tuba nee na ci dawaamu sukri laa jinaani bi ruu yi wal jasadi lil jinaani سنتواليا هذه دوام الشكري للجناني بالرؤي والجفد والجناني يا لما ما بك يا سنت باجنا سنت خل أتنت رو أتنت يا رجل مانجل إزيار كل نور ديكو سنت من شبرا وأن يجب مصطفى عليه الصلاة والسلام لخن لي الله بندي تبارك الله كبير Sëriñ Tuubaa nee na bu dul woon ak Seydina Mohamed dara wax la saaka xutbul wara turan waa talum law laa lam yaxlu xin mawla xalikaati Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa nee na sawatahu fi man madaw wa xadaru wa fi lazina taxbalu fal tansaru mooy sangum ñu njëkk ña ñu mujj ña mooy sangum ñi ci jamono Seydina Mohamed Sëriñ Tuuba nee na day dooram mooy bëggeel ñi gëm yàlla loxo càmmoñam mooy xupp ñu fi ali muslimin na daa shimaluhu fi ali mujrimin na daa Sëriñ Tuuba nee na sama yéene sama lépp jox naa ko Mustafa loolu dee la niyaati wa wa xidmati wa ruuyi wa jismaani wa kulli bila sukli Sëriñ Tuuba nee sama yéene sama xam-xam sama liggéey lépp jox naa ko Moustapha sëñ Tuubaa ne bëgg gi ma ko bëgg tax na bëgguma leen bëgguma doom moom rek laa bëgg maa ma batiyal muxtaaru sayiduna wa bil maxaaniya wal ahliina wal walada sëriñ Tuubaa nee na sama deret sama alal sama nañu bopp lépp dajale naa ko Moustapha dammi wa ahli wa awlaadi fidaa'un lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada njabootam gi li ci ëpp Moustapha la leen tuddee sëñ Touba bëgg Moustapha ñooñu mu ko tuddee nag bokk na ci Cheikh Mouhamadul Amine boo woowee conférence yi nag buy wax da ngay concentré wu loolu ci la bokk da nga ziar ci mu jooju nga toogal. Hmm? soxna maa awa moom Cheikh Mamadou Lamine ñoo ngi lay ziar. ci teel na tànkam teg ci ni de ah Cheikh mu ni sëñ Bamba day am gan ci gan gi teel na tànkam teg ci te soxna aji ni mu doon concentré woo dama defe ni mbokkam mi moo ñàkk concentration déet yow kay toogal te concentré wu rek te def ni moom toogal te concentré wu rek te def ni moom <laughs> yàlla nga fi yàgg te wér waaw tey naa dina génn seen bambara Mouhamadul Amin sëñ ko Mouhamadul Amin Moustapha teel naa tudd Lamine ki ñu wóolu lu waay doon dénk màkk moom la koy dénk. tey ma feeñal fi Cheikh Baara Mbacke moo ko baax Lamine doomi Lamine moo bëri xar baax xar baax waarix yamu làmbool sewal na docteur ku wépp boo nee mu tifli nga wow nga wér mbappam ba def buur. sama am Cheikh Mamadou Lamine Bara xanaa xamoo dëggoon loolu taxawaayam nga doy na kéemaan xanaa xamoo baatu ba mu làmbool la jëm na diwaan Cheikh Mamadou Lamine fa jaajo moo ci gaaw lu mu wax yàlla ni day fal di folli ci lu gaaw mag naa ragal ci xam ne bi Cheikh Mamadou Lamine sama moom la Serigne Touba bindoon na lépp cameraman lépp ni ko sëñ Tuubaa bi doon dali ko asalaamu aleyka yaa Muhammadul Amiin sëñ Tuubaa wax ak moom maa ngi lay nuyu yow Muhammadul Amiin Bara sëñ Tuubaa ni ko satanaaru makaaman yaxbituka fii jamii'u saarika waay waay yow Cheikh Muhammadul Amiin di nga am maqaama moo xam ni ku jamono teg yow dalay ñëwee waaye doo ko ñëwee ستنال مقاما يحبطك فيه جميع امثالك سيد مالك وكل من كان معك جميعا لا يرون الا ما يسرهم وينفعهم في الدنيا والاخره يا شيخ محمد لمين نا خامي كيف كان اليوم ادي اليوم دوجس دول ني فاي جاري اي كالاخره Sëriñ Tuubaa ni ko wa hum yadxuluuna aljannata bi xayri isaab te ñaari réew ñëpp yow Cheikh Mouhamad Lamine àjjana leen jëm kenn du leen isaab ni ko yow Cheikh Mouhamad Lamine wala tas fi kanyaati risalati min indillahi wa rasulihi wa minni tey eh, bul sikki sàkka yow Cheikh Mouhamad Lamine Bara lii ma la wax man Sëriñ Tuubaa ni la ko amit yow mucc na ci isaat kenn du ko isaat àjjana bi jëm coalition lu koy digal rek lay gis ak lu koy tey yow Cheikh Mouhamad Lamine bul sikki sàkka ni wax jii ma la wax ci yàlla la jóge jaar ci Mustafa sallallahu alayhi wasallam ñëw ci man ma jottali la ko Cheikh Mouhamad Lamine li mu bind ci téere alxuraan néew na doomi Sëñ Tuubaa ci ko bind am na ñu ne moo ëpp lu mu bind ci gàddu Cheikh Mouhamadou Lamine li mu taalif ci xasida néew na nga gis ku ku dul sëñ Touba bokk na ci busraki yaa arda Touba keroog bi sëñ Touba jógee njaaram ñëw Touba keroog dafa doon ndokkeel suufas Touba moo tax ngay dégg waxu sëñ Muntaxa mu leen xel ki fi dëkk loolu bàyyi leen xel ki fi dëkk sëñ Touba waxoon na ko waa Madina sëñ Ibrahima Samb كرت قصد إلى النبي رسول خجانا بالهدى كرت بما كان مدينة تاكي نيوت مصطفى نيوت مو درجة مك نيوت سنتوا نكو عمنا نبرلهم ما كان جاخلنا مدينة جاخلنا سنتوا بنا خفنا ما بنا تلنا الله فستم بكوني مياتنا إجاركم ينتهنين ناكن ينتقل مويت دور يأتي لأي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايد المحب سنبارني خارم الله كان سوفستوا yow suba suba naa ngi lay ndokkee kii ñëw sa gaw tey kii ñëwul tey te nit ki am ko te beneen suuf dootul am ko mel ni Sëñ Tuubaa loolu daf ñuy fàttali xutbab Cheikh Mamadou Fadal Ba allahu zul fadlul azim comme jox nga leen des na yéen fàllu mooy fàllu su fi kenn du ko ñaar moo nopp ñaari meeru ngoor mooy ndombatee ci xam na moom rek a toogoon ni maay Sëñ Tuubaa fekk yéen a may gis yéen a gis sëñ Tuubaa bu ngeen ko noppee gis doomi sëñ Tuubaa ngeen di gis sëñ Saaliw bi sëñ Tuubaa di may Saaliw jël caabi otoom jox ko ñibbee kër ba tànkam Cheikh Mouhamadou Lamine moo fi ne mu nawirul bunyaan sëriñ bu cosaan day ñetti lii mën a wax yëral mu nawirul bunyaan kon nga naw sëriñ Baara wax na wax joo xam ni néew na nga gis ko wax sëriñ Baara ne hadaytani ya haadiyan alamtani saxaytani kabsa sifa rabaytani Cheikh Moussa Ndiaye zikru ak a bëgg sëriñ Tuubaa hadaytani ya haadiyan alamtani sëriñ Baara ne xanaa jaar nga jaar ci sëñ Tuubaa daa mënul ñàkk rek jëfi la waaye fekk na nga indaale alxuraan ko sëñ Bamba ko dalal baa ñu yóbbu ko ci sëñ Daam Abdourahman loolu Cerno Ibra Faati yaa Seexuna Cerno Ibrahima Dia wasawu maam Thierno Zul Karami ba Zul Karamati seexul aqiqati bal seexul sariati bal haadal wilaayati Bamba ne woon ma Samba caat bu ma bindeef doon xam Birayim xam ma Thierno ci man lu kenn xamul Thierno am ci man lu kenn amul jàngal na ko xam-xam. waaye kii sama am Serigne Bara moom la Serigne Touba yowaloon Mbacke Kajoor bàyyi xel Mbàkke Kajoor cosaan yoonu murit la fa la yoon ñaar fukki fan ak juróom ñaar koor Sëriñ Tuubaa laylatul xadar ba ci suba gi daal di def déclaration bi xawlihi rabbi asaanuka bil himma wala turabihim bi nafsi faqat Moustapha wax na ak man nee na maa leen tiite te bu ma leen yar ci jàngale ci mbooloo ma keroog dañoo ni gën a néew waaye woo def sëñ tubaab bi laa lay wax waaleykum salaam ake balla woo def sëñ tubaab bi laa lay wax ba yàlla te bu tam woote sëriñ tubaab nee na yàlla ma digal ma woote yàlla nee na ma su ma wootee naa leen wax ni may wéeru waay wi may lakk waay yi man sëñ tubaab ku bëgg a rawaat naa ko laaxira naa ju ci man أمرني ربي بأن أصرخ بأنني ملاذ وإما ومبدأ فمن أراد dara yéen bi yàlla digal na ma ma wattu ngir man sëñ Tuubaa wéeru waay laa làkk ku bëgg mu àdduna ak alaaxira maa ngi nii daal di wax ni walaahu yansuruni wal xawfu tatbawni fil barri wal bahri xaada fi dradari yàlla dimbali na ma mi ne fi doon may topp ci kii teg ci kii yi njëriñ rek laa yor ba xam nga ni sëñ Bara tuddee na sëñ Tuubaa doom ba tuddee ko caractère yi sëñ li sëñ Tuubaa wax ni moom laa doon tuddee na ko xam nga lan la sëñ Tuubaa wax ni moom laa doon biñ ne sama makaamu dañ ko xam sëñ ma yaasin lim fi teg mooy Abdul Xadim laa nazaani min alwara albaaxi alxadim allamahum bi annani Abdul Xadim yàllaa ma sëpp ci mbindéef yi xamal na leen ni maay Abdullahi maay Xadim Rasul خاب المقام ينسب الباخ الكريم وإنني عبد خديم لا يريم سبا مقام من سن تبا كل يالا خمكو عبد الله وخديم رسول غني خمت من لمن سن تبا سبا درجة ما عبد خديم درجتي كوني عبد الله خديم عبدي ابن عبد الله سن بارتي دي سن تبا دوم ني ترم وو دي عبد الخديم لا كوي تودي موي سن عبد الخديم عبد الخديم enti eh, sëñ Tuba nee na loolu yàlla da koo saxal de sëñ Tuba nee loolu yàlla saxal na ko lu de waaye fukki at ak ñeent la Cheikh Mouhamadou Lamine am ci kaw suuf mille huit xanaa guddul ci zahir te boo ko xamul da nga naan dund nañ ñaari téeméeri at ndax njaboot gi macha allah te nee na lu ma jur wëddi ñu la Cheikh Maodo Lamine boo ko musaana wax wala yu Kajoor mun la ak topp de yi. teel naa ñàkk waajur bu jigéen lool moom Cheikh Mamadou Lamine la dalam turandoom daal na ko turandoom wuri daña tiiman Moustapha bi mu juddoo jirim la gisul baayam teel naa ñàkk waajur bu jigéen lool bu yemoon ci waajuram bu jigéen nga te yegul ci sëñ Tuba Serigne Bara wàllu yu lay doon xaafis aarif lay doon alim lay doon sëti Ahmadou Maxtaar ma sancoon kokki ak sëti Gaydal yafa daam di fumti xanaa xamoon ni sëñ Ibrahima ñoom amoon nañu jaloore door a xam daal sëñ Bara maamam sëñ Ahmadou Mokhtar Ndoumbé mii maami soxna Aminata Lo xanaa xamoon ni sëñ Touba nee na ci jagaaw sakkuurul atu fii jawaab yi ab ci nekk xutbum jamonoom la woon mooy sëñ Ahmadou Mokhtar Ndoumbé ma santoon ko Moustapha al Karim ma bokk maam ñoo bokk waajur bu jigéen soxna Aminata Lo ko daan woowee Amina Amina mi am ngërëmal yàlla Aminatul Mardi ya moo jaayante woon deretam jaayante woon ruum ngir yoonu mu di soxna Aminata Lo waaye soxna Awa Bousso waajuru te bàyyil xel soxna Awa Bousso doy na ci sax Sëñ Tuubaa moom la doon dicté Matlabu Chifa yi di ko wax mi bind. kon ñoo ngi lay bu baax ci bis bi ñoo ngi ñaan nga yàgg fi lool ñoo ngi ñaan nga weer lool. diggante nag njabootu sëñ ba sëñ Tuubaa gi yëpp gis nañ ko xanaa xamoo ni bàyyi soxna Maawa mii di Alaaji Mouhamadou Lamine Baara Serigne Baara moo waxoon bu yàgg toog gi muy toog ci xilaafa gi bu ko xool foog wa Serigne Bara wan na ko lu nekk def naa ko lu nekk fanweeri weeram yii ni woon koy may caayam kon Serigne Bara leneen i boromam la woon yal nañu ko yàlla doole fayal ci barke Serigne Touba soxnaa ji bét nanu lo sama baay nee na ma daan ànd ak Serigne Karim Thiès ne ne ne ñu war a ñaan ne sëñ Abdou Karim ni ko joxal soxna may mu ñaan ah ne mu xaw a hésité ni sëñ Abdou Karim ni ko saadi bu xanaa xamoon ci ñun ñaanu góor jigéen ñee gën a gaaw ñaanu góor ñi keroog bi a demee di di ko fàttali sëñ Abdou Karim dani ma dama ni ko saadi bu muslim jigéen ñi xanaa xamoon leen ni ñaanu jigéen ñee gën a fekk boobu soxna may a ngi toog soxna may toog sëñ Abdou Karim woo ma ni ko ni ko kii doomu Sadibou la mooy sëñ Touba Touré ma toog rek di yaru yaru sëñ Abdou Karim ne ma doo def ni sa baay doo jóg waxtaan ci sëñ Fall rek ma jóg mel ni sëñ Abdou Karim dugal na ci man aal ma jóg rek di ko waxtaanal ci sëñ Fall bokk na ca la ma ko wax ne ko yow sëñ Fallu carte d'identité alxuraan boo ko nee noo tudd mun la laajal alxuraan innal fadla bi yadillahi yuutiihi man yashaa wallaahu zul fadlil aziim sëñ Fallou boo ko nee ban gis nga gën a jamono soxna maam awa sama ban gis nga gën a jamono mën a laajal alquran yaa ayyuhal lazina amanu izaa nuudiya lis-salaati min yawmil jumu'a fasaw ilaa zikrillaahi wa zarul bay'a zaalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamuun sëñ Fallou boo ko nee ban heure nga gën a jamono mën a laajal alquran subhaana llazii asraa bi abdihi laylan laylan nga doon wax naan waaye Moussa dana lay mën a jëpp sëñ Fallou boo ko nee foo gën a jamono wala fu mu siiwee mën a laajal alquran wallaahu yad'uu ilaa daaris salaam sëñ Ba boo ko la laajal alxuraan allazina amanu wa amilu saalihaat tuuba lahum wa husnu maab bi sëñ Tuubaa xool na ko ne ko Maodo nee na nga bindal ko kàddu bi ni ko yow nee ko dama koy jaay bu dee yow dama lay jox addiya waaye sa borom nee ko dama koy ni ko sa borom

bis boobu bi ma sëñ Karim naan waxtaan ak sëñ Fallou sëñ Fallou mu sëñ Mourtala garab la ma ne xanaa xamoon ne fii laay jébbaloo ci sëñ Fallou fii laa ko fekk ci buntu kër gi boobu tuukooru ñaam bi ne fii laay jébbaloo ci sañ Fallou. ni meloon ak sëñ Fallou noonu la meloon ak Cheikh Mamadou Bachir di nga fa fekk ñaari Bachir sëñ Bas bi di mooy sëñ Bas Baara yàlla yàlla dolli leeram waaye ak sëñ Bas Khoudia Diagne. kon Cheikh Mouhamadou Lamine leneen i boromam la woon waaye leneen i sëñ Tuubaa la woon yal na yàlla dolli jàmm dolli tawféex waaye def na ni ñëpp def def na ni Cheikh Moustapha demoon ba tudd Moustapha Ndiaye def na ni sëñ Fallou dafa ni ñaar lay roy muñ suuf ak tali bi Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima ku jariñu moo la wan yoon wi ñu jariñu نتوتا تخون مدام فك سرين بلم بلم بكام دموس تباتنا ندول تبس بني تحي شيخ ابراهيم فو لكو وي كان بوخون دوينا من شك في ابراهيم فال وفي تاريخ الكمال ان لم يتوب لذي الدلال يرى مذابا خد ما شيخ ابراهيم فو jariñu moom la murid yëpp war nañ ko delloo njukkal bu nuyoo sëriñ biiraam Cheikh Ibra bu ñu woowee murid mu ñu mbàkkee Cheikh Ibra fekkoon na ñuy jàng fandaar moo fi xewal nuyoo diraam moo ñu tere wuyoo ni naam moom muy murid fexe yal nañ ko yàlla fayal ci barke sëñ Tuba sëñ Moussa maa ngi lay ziar faam ku ñu wax sëñ Baara Amar Baye Fallou xam na ko sëñ Baara Amar moo jur sëñ Cheikh Amar ak sëñ Moustapha Amar Daaru Xudoos sëñ Baara Amar sëñ Baara génn lañ ko tuddee woon bi sëriñ Baara samaam gane fekk fa sëñ Baara Amar ni sëñ Baara jenn Baara mi féete woon naa ko bi mu ko jëlee téye ko Amar dem na ba leetir boo xam ni dañ ko wa allamnaaka min ladunnaa ilma xamal naa xam-xam bu bàyyi ko ci ma sëñ Baar bi mu demee béykat da ko woo ñu ko baara ñeme nga ma ñeme ma ñeme sëñ Baara ko kaamil sëñ ko kaamil ñu ko toogal maam nee na ma ne sëñ Baara jël boppam teg sama bopp jox ma kaamil bi ni ma jàngal saar sàngam ba saar sàngam jàngal saar sàngam ba bi ma tàmbalee ci ma Cheikh Mohamad Lamine wax ba yegg fa ma waxoon naa ba yam kër boobu sëñ Cheikh Amar doomam nee na ma sëñ Modou Aïssa ak sëñ Siri Muxtaar nee nañ ko xanaa xamoon ni sax sëñ Baara Amar jële woon na ci jënd boo xam ni dañ cee jug ci baatin moo tax mu wér. Cheikh Mouhamadou Lamine leneen i nag Mbàkke ñoo ngi lay bu baax waaye ku ci jaamu yàlla la daan def lu muy waxe astaghfirullah Serigne Touba nee na sama musuma def lu yàlla araamal musuma def lu yàlla sib ليست جواره تميل للحرام ولا لمكروء وفست بالمرام سيرين توبا نينا ما راو نيب القران بما كاي موكال واتي بول سي مصطفى افست ما انزل الجليل قبل نزول ما ترتلي سيرين توبا نينا سما درجه كاوي نتي دوتو سوفي كو بوج ما سوفي درجه تعلو وليس تنخفض ومن من الورى خفض خفض سيرن توبا لينا يا لا سما خالد لا يا لا سما شوكلا لو نيو تي مان داي سوبا يالا فلكو مو بري رحماننا رحيمنا خليلي حبيبي المكسر الخليلي سيرن توبا لينا جيجنا نيت ني تيجنا لي بيسا ولتف بنا وخوينا وكلنا ومسلم وصلي على نبي وسلم واقربي حاجة كل مسلم وفيت كل درر يا الله بشر لا إله إلا الله وبالمراد يا كما هو بشر لا إله إلا الله ما أغواه بسر لا إله إلا الله على نبي مصطفى الله صلي بلا إله إلا الله سلام مخدي بسلام الله بسر لا إله إلا الله سلام الشيطان جرجف ممسال يا مطندل كلام دوت نقب يتاني ممسال يا دي كيب واجل بيرن جيب لغو بكرم قرن خاراني ممسال يا دي كيب واجل بيرن جيب لغو بكرم قرن خاراني سخان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ركب رمتوبا احمد الخديم اللي مو كيدفع البرامة كيدفع الكوكو اللي مو دور برامة كيلولو امو الكن كوكو مسافة مسافة كون باليسة نجي سنتو باه تدي لا سيرالني سنو خول سيدنا بيو di ñaan sa fan wi gudd lool ci barke borom Touba ndax Olof Njaay dafa wax ne suma waa ji sunu waa ji ngi ci gàcce ngi ci waaye nag Cheikhuna Ahmadou Bamba ñu nu waayoo sagal na nu lool sagal na nu lool toogaay bii nag rafet na ndax Cheikh Mamadou Fadal fii rek la amoon fii rek moo doon pekkam te sa baay bu baax ba bi muy ñëw fii fii lëndëm na lool loola wóor na Serigne Mbaye Faye nii barke Cheikhouna Ahmadou Bamba kon fii nga toog du sens interdit déedéet sama moo dëgg jëng yi da ko ne xam na mu démb xam tey waaye noo ngi ñaan ci barkeb sëriñ Maam Mor Jaara borom saam yal na yàlla gudd sa fan sagal nganu witt li nganu dimbali nganu kon yal na la yàlla fay ki néeg bi damaa wax ne soxna aji day mbàkki am na tawféex bu wér bi nag yaatal na ko lool ndax sa maam ju baax ji mu Cheikh Mouhamadoul Moustapha Fall nee na damaa bëgg a lebal sëñ waaye sëñ Touba fay na ko su àjjuma masaan di jot damay jox warga ak suukar ak lu bari ne ma àndal ak sëriñ Mbay ngeen dem liggéey li yàlla barke borom Touba kon bàllee sa bu toogee fii ngay sunu waay soxna aji ngeen sunu waay loolu tawfiq bu ko reesu sarako ju baax gi nag yàlla na fanam bopp ñoo dugguwul te gul woote wut ak tayli rek la seen dal fa seen fa lu defoon rek ñoom la def moom daa gaay lépp def def ko tayli nga bàyyi noog moom nag muy feltu ak moom barke Seexu na Ahmadu Bamba kenn da ko rom bayat judduwul na yàq juddu bi ndax tëgguwut te bu tëggoon dina am yi mu bëgg waaw yoonu yoonu yoonu toppe la bi Alaaji Baar toogee di Sëñ Tuubaa Ablaye Mbaye Ablaye Mbaye beex def na ko ki daan toppe tey tey tey garde du corps ma garde du bi jot na sëkk nag ndax daa nga toppe kon balay ñu ngi lay nuyu murid ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay safoo ñu ngi lay ñu ngi lay ñaanal yàlla na nga fi yàgg loolu tamit sa barke maam yu baax ya yi nag xolam sa dana guy guy nun ñii nga xam ne amuñu lu Tuubaa caare ñun la suñu xool gën a set waaye nag sa kër maam rek la baax aji me sa kër maam rek lañ ko defaree fa la baax dolli sa nag la la mu baaxoon waaye nag ñu ñaan aw fan a gudd lool ci barke sëñ Tuubaa kon bu ko defee rek ñun ñëpp mun na bokk toog déglu sëriñ bi ndax man maa sàkku maa bëgg mu dimbali ma ci ay kaddu ndax dañ koo nam naa ne waaw ma dama bëgg nu toog tuuti rek mu dimbali nu loolu laa bëgg sëriñ Mbay ñu toog déglu sëriñ bi tuuti rek ci barke Cheikh Ahmadou Bamba jërëjëf Mbacke Alif Lam Lexin Walam Sikayu Bamba Gua Kerem Kutudu Yalla Tudu Siya Khadim Kutudu Yalemba Tudu Siya Khadim Kunyo Simam Khamlim ಹೆಸರಿನ ಸಾಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೋಲ್ ಚಬಗನ ಪಸಂಪಿಕೋ ಚಬಗನ Syekh Usman Sedela kenn nga Serigne Saliou jërëjëf ñu ngi jadi, di jégal bu wér di autoraay bi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 mbokki jullit yi mbokk taalibe yi fi teew yëpp waaye di ñaanal mu Mouhamadul Mountakha Mbacké suñ boroom dolli ko yàggal lool dolli ak wéram ci barkeb sëñ Touba ba mu yeggale naalam yi mu naalal sëñ Touba yëpp te ñu ànd koog moom di ko ñaanal Cheikh Cheikh sëñ am di Modou Mbend am Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal sëñ sëñ Cheikh Isma di xalifa borom saw di siare bu baax baax soxna ji mbàkke te di ko jox wàccuwaayam te di ko ñaanal suñ borom gëna yagal ko fi te wéral ko di siare bu baax serigne Moussa mi di suñu rak di suñu lepp te diko ñaanal momi taxaway bi yàgg amana waxtaan wi mom danaka mën na ni mat sax ndax serigne Bamba Touré li fi jotta wax rek doy na sëkk ci waxtaan dugg na ci tedd ki dugg na ci Cheikh Mouhamadul Amin te li mu ci wax rek daanaka dundal na xol yi bu baax ndax fàttaliku ñooñu mooy dundalaat leen inda zikru saalihin tanzilu rahma ñoom fàttaliku leen rek mooy dundalaat leen te bis bu toll nii di bisu Cheikh Mouhamadul Amin nga wax ci lu rëy lu toll nii ci nga wax ci moom jàpp naa ne bu fi jógee ku ci ne mën naa duy ci sëriñ bi ba fees waaye dañuy sant bu baax a baax rek di sant soxna si bu baax soxna Aji Mbàkke di siyaare bu baax soxna muslim xëy na nekk fi waaye ñu ngi koy siyaare bu baax a baax euh, soxna Aji dañ koy sant bu baax ndax moom suñ boroom daf ñu boole euh, ci Sëriñ tubaa yàlla dogal itam mën naa ne ci kanamam lañu yaroo ndax boobu ñu ngi ci daara bi jàng ak lépp saa buñ jógee itam ñëw ci kër gi waajuram ci soxna Anta di sunu waajur waaye mu jàpp ñu jàpp woo xam ni sëñ Touba rekk a tax bisam bi itam daaw bi ñu fi ñëwee def nañu bu ñu gisul kenn nit bu ngeen gisee rek dooy nañu sëkk te loolu jàpp naa ne ak rëy ab cër gënu koo gën a war ko mënu koo gën a rëy ak jàpp itam mënu koo gën a rëy kon ñu koy sant bu baax a baax a baax te moom ak mbaaxam rek la ñu jàppe ak mbaaxam rek la ñu jàppe ndax bis bii ñuy defal sëñ Tuubaa yi ñetti fan saa bu jotee wax na ko ma Masamba wax na ko léegi ci biir seede ko ñetti fan yëpp da koy ànd ak ñun te loolu yëpp sëñ Tuubaa rek tax bu ñuy jug di def marche bi day jub ne damay marche ànd ak yéen saa bu ñëwee sax danaa ne ko poussière bi loo ko may mbàkki demal nga toog waaye danaan damay jaayante damay liggéeyal sëñ Tuubaa loolu nag dara gënu ko rëy kon ñu koy sant bu baax a baax te. li sëriñ Tuubaa waxoon rek fofu la nek zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahidu wa hab lana zurriyatan tudimu al a'mal as salih ya khadim serigne Bamba wax na ko léegi jigéen ñi ñoo gëna sax ñaw góor ñi bu nu ñaané rek suñ borom def te suñu borom ci alquran fu mu tuddé góor rek tud na fa jigen indal muslimina wal muslimat wal muminina wal mu'minat wal xaanitina wal xaanitaati والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا وذاكرات ñuy tudd yàlla lu bëri ci lu góor ak ñuy tudd yàlla lu bëri ci lu jigéen lu mu tuddee góor rek tudd na si jigéen te loola mooy taxawaayam taxawaay bu mag sëkk la taxaw ci doon kenn ci biir njabootu Cheikh Mouhamadul Amin féete fii ci caaray waaye siggil bi sëñ Baara lool ba boo ko gisee rek doo laajte mukk njabootu sëñ Baara nan lañ mel moom ñu ngi la ñaanal yàlla taxawaayam gën a yàgg bi yàlla na ko yàgg a woote ñu yàgg koo ànd ak moom ci barkeb sëriñ Touba sëñ sëñ Fallou da ngaa baax rek waaye yow yàgg sëñ Alaaji yéen suñuy nijaay ngeen ndax ba ngeen sëñ sëñ sëñ sëñ Babacar Faye yéen ñaar suñuy nijaay ngeen ndax ba ngeen di dem di fekk ji sëñ Xaadim booba du tey ngeen ànd liggéey bii ba tey jii kon ñu ngi leen di ñaanal seen taxawaay gën a yàgg ci barkeb sëñ Touba di siyaare jàngkat xasida yëpp di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax ak mboolem waxtaankat yi waaw soxna si moom bisam sunu bis la lu ñu fi deful rek dañ koo amul waaw waaye nag bi mu yëkkati lu nekk rek loola ñu ngi ci biir moo tax ñu ngi koy ñaanal taxawaay bi gën a yàgg ci barkeb Sëriñ Tuubaa ko defee xam naa comme sama mbir la te jàngkat yaa ngi toog waxtaankat yaa ngi toog te ku ci ne wax naa barkeelu ñu ngi leen ñu ngi wàcce foofu kàdd yi te di leen bàyyi lii des ci kàdd yi di ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla na ngi ci dajee ngërëmal Sëriñ Tuubaa mi ngi ciy sàkk dajee ci ngërëmal Cheikh Mouhamadoul Amine yàgg koo woote te saa boo ko wootee rek mu raw fa fa fa fa mu yemoon ci barkeb sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaw jërëjëf Mbacke bu mu doon rek ñu nag moom ñu ñoo koy àndal ba mu agsi fii ta maanaam taal daay nag yomb na taal ak daay yomb na waaye nag fay ko moo jafe daay gi moom ñii moo ko taal bu ñu ko wootee moo fa njëkk jàng alxuraan te sëñ Bamba mu mu mu moo gën ci alxuraan te mooy mooy alxuraan kon yàlla na fanam gudd ci barke Seexuna Ahmadu Bamba kon nu bokk tàllal loxo yi loolu ñaan bato dem bato <laughs> amin amin raayoo leen ok Mbacke jërëjëf sunu xol sedd na lool kàddu yi am na solo lool ñëpp sunu xol sedd na tey mbooloo mi yëpp ngi lay sant bu baax.